Assalamualaikum, assalamualaikum. siyaar naa leen ñepp ñëpp ku si nekk ak santam gëlen jox sen waccu way di len dalal jam na len dal den jam dal jam dal do jam si barke sayidina Muhammad no anu daal di fasiyene tambale waxtan bi tay si Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim daal di ko pare si nyop, rabbil alamin di len ziaré ñep di len ziaré ñep di len ziaré ñep fu ngeen munti nek di len fekk fu ngeen tok di len jox waccu way naa jam dal jàmm tey moom mooy loolu je me sens pas à cent pour cent quoi tey moom dama feebar tey moom dama feebar te feebar bu ma gën a jéppi feebar bu ma gën a soof moo ma dal quoi soj soj ma soj quoi soj ba bul comprendre soju ginaar te mel ni ginaar quoi ah non lii sëñ bi la ay soju sëñ bi yor foofu barki sëñ bi yaar naa leen yaar naa la yéen ñëpp jaar naa leen ñëpp ku si nekk si turam ak santam ana ana ana ana bokkaalekatu yàlla yi dinañ jël sama feebar bi nag yóbbu ko si sëñ bi waaw yóbbu leen ko si sëñ bi de sama bokkaalekat yi kaay leen sëñ bee ma feebarloo wala seen xërëm yi wala kii ah man de yàlla jox na ma socc kaay nii sama bakken bi comme robinet maa ngi mel ni ginaar bi lay sonn bu ba socc moom daf may soof quoi eh, mais kon ma ko waxee gaa yu mënul tontu yi gaa yu amul tontu yi. waaw ah, sama soj bi daa mel ni sëñ bi la de sëñ bee ma ko tontu wala la nu mu demee noonu su dee sëñ bi xam-xamu soj la am nanu lijjanti cité bi ndoxum cité bi nee naa leen Sénégal ñëpp cité eh eh eh tout le monde àllu ndoxum cité i sabaday waaw mais léegi à part blague salaam salaam salaam man damay tey moom live bi ma sampa sens bien mais du ma bàyyi dara mu dem léegi daal comme nu nga koy waxee rek damay ñëw def sama cri du waxtaan ak sama taliban yi xam nga ni que nee naa leen même même clause de la mort xam nga dig naa leen nee naa leen di ngeen fi suuli nit di ngeen fi suuli nit dugal ko si bàmmeelam maasale ba pare tourné wan ko ginnaaw foog ne le combat yi fini ngeen dégg ko muy lijjanti kaa bi ba léegi si suuf. loolu man maa ne donc nag feebar xam nga wala sentir tuuti sax énergie wàññi sax duñu wàññi déggoo ma de dañuy ñëw jàkkaarloog yéen bëggee ko yeneen ñuy may doole yeneen ñuy xolal courage ko quoi <laughs> oui ma ne leen taliban de ngir yàlla wala rasulillah ngir wala rasulillah du ma ne kenn bul saaga parce que nen nit bul saaga te xamoo lu muy saaga nag moom day xaw doy war du ma kenn bul saga parce que xawma lutax ngeen di saga yéen xam lu pourquoi ngeen di saga am ngeen droit saga ni ku nekk mom boppam mais nak am nak droit la ñaan leen am droit ñaan len am droit laaj len ko am droit ne leen bay faal su ngeen we ba pare ba def comme nu ngeen defee ba lolou ngeen xam ni kenn xamul lutax koy def au oh, minimum ngeen gorlu am jom ngeen gorlu am jom ngeen gorlu si tontu yi ngeen gorlu si jaamu yalla ngeen commencer ragal yalla ragal len yalla ragal len yalla, ragal len yalla, yeureum seeni waajur de ngeen man da lol la am lo xamna ni ko en tant que conseil d'un frère lu ma leen jox su ngeen dof dof loye ba pare ba dem ba tok na ngeen yew ragalat yalla ragal yalla ragalati yalla lolou mom lañ fi déssé comme numa ma ko waxé sen reewande bi ngeen di jéem dék like that sama téléphone day sone rek nga naaw yow tamit waaye toogal rek ah parce que moom leen fi dese ginnaaw ay fenu santan ñu ko doon fen ragalu nu yàlla ñu jottali fen yi santan ragalu nu yàlla ñu jël fen yooyu noonu dooleel ko ragalu nu yàlla ñun ñii génération bi toog cent ans nag ñu fenn ko bopp ba léegi mënuñu ko expliquer mënuñu ko wax mënuñu koo sax défendre si dëgg ñu walla mën na ragal yàlla suñu ragalulee yàlla suñu ragal suñu bopp parce que tay ji ni ñu bari doom ak xaraam yi comme numa ko waxe ñongi fi di saga di vilipane di jema tek lu ñuy défendre ñom sen bop xamunu ko lu ñuy wax ñom sen bop xamunu ko ben ben wax lan fi am moy lan fi nga ko fekk suñu baye ki nanga ma na du len fen comme nu ñu fenee suñu mami ñew bëgg no fen point barre voilà c'est de la même chose que je le dis xawma ma len kan mo débrouiller dem jël ni dem woki man ku joxe sama numéro rek moom ma tooñ ku joxe sama numéro du ma ne sax tooñ na ma man kese de mais toolaane la paa boobu noonu foog na ni que suñu jëlee woo ma ne ma waaw sama maam sax dama koy xorom loolu ngeen xamul man sama maam bu ma bokkal bu nekk si kii ki nangam su dëgguwul damay xorom ndeyam ñoom xam nañ ko sama famille man gëw ma loolu nee naa leen mënumaa ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk fayda non mënul nekk ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk fayda nag loolu mënul ne deug 1 plus 1 égale 2 jël téléphone joxé ko ni naan non waaw sa maam laa waaw kii waaw lu ngay ki dama lay wax sa musiba comme numa koy waxé rek dama lay wax sa musiba baye du la fen fen ma fen kenen fen kassa des ñun nak fen yi la ñuy on exige seulement de pouvoir défendre la prière de Serigne Touba avec des arguments solides est-ce que c'est trop demandé vous nous avez raconté des conneries, des balivernes depuis longtemps. On doit raconter. Maintenant, on, voyage partout dans le monde. Les Sénégalais sont partout avec cette histoire dans la bouche. Mais on doit pouvoir le défendre avec des arguments solides. Donnez-les-nous. Donnez-nous ces arguments qu'on vous demande. Vous êtes là, vous venez maintenant tourner tout le monde, les diaboliser comme ça là. Non, mais c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Bye Fall c'est le bordel eh eh eh yéen yéen yéen te ngeen a góorgóorlu si tontu yi da ngeen bàyyi sama booy yi moo gën ngeen di lijjanti sama fils yi bàyyi sama booy sama xaj yi da ngeen di wax ñoo leen gën a gore xaj dafa gore de billahi xaj du moroomu sax ñuuxit ah tout dernièrement da ngeen bëgg ma yéeg wala leen vidéo bi xaju Baay Faal bu bu waaw ñuuxitu laax yi sang defar comme nit suu ko tuddee woon ko murit ah ñoom de ko tuddee murit nee nañ xaj bi de su yi doon euh, cant wala nangam da doon da leen doon wër di yuuxu di mbow naa wow wow wow wow ah, sa cant ya yaa man daa nee naa leen ay ay ay ay ay ay dooma xaraam yu ñëw bëgg a sang nit ñi bëgg yee nit ñi bëgg gën a fay set nit ñi bëgg a vilipender nit ñi bëgg dox joxoñ nit ñi comment on est où ñuuxitu laax yi mënoo leen dire rien à qui nee naa leen Sénégal tout le monde a le droit de parler sauf ñuuxiti ñuuxiti vous êtes les derniers à devoir ouvrir votre bouche yéen ñëpp wal ne noo wax sauf yéen ñëpp wal ne noo wax sauf yéen defoo fi dara amoo leen révolution seen histoire seen yoon seen jaar-jaar amul révolution amul xeex amul dara xam nga lan la am noggatu yéen néna len tidiane tijaan yu ngeen di xeew su ngeen xolé tidiane ya sa fu mu jugee ñom sen affaire au moins y a eu une petite révolution amna na jaar-jaar ku leen ko joxe ku ko joonee au moins xeex na ko am lu mu def ñeneen mais ñuuxitulaahi wax rek pa pa pa pa pa rek so jógee nga dégg len waaw tubaab bi xam nañu tubaab bi moom yebunu waaw tubaab bi xamna kuy seigne bi man na len mais vaut rien nan la tubaab bi dul xamé seigne bi ku partagé ak seigne bi 32 ans yéen tubaabee leen gën a xam sëñ bi tubaabee leen gën a xam sëñ bi tubaab bu ko tubaab bee denc archive sëñ bi ñoom ñaar 32 ans pic ak pelle moo leen séparé pic ak pelle collé serré bras dessous bras dessous tour Gabon Séné ñu ko ci Gabon Ndiarène villa villa résidence xaw ma lan ñoom ñëpp ñu tourné ngeen ñëw ne tu mais waxu daanu sareet la si loxoom la wàccee liggéey si loxo tubaab bi si loxo tubaab bi la wàccee liggéey ba nit ñi di ko laam-laame ñii naan peste ko rey ñii naan dafa jinnee ko feeñu mais lu wóor ba wóor daal faatu na ay fan yi fan balaa gars yi di comprendre léegi ñun léegi ñun lu ñuy wax ñun lu nuy wax ak yéen lu ngeen di wax léegi c'est quoi la différence ay doomaraam yoo xam ne nee naa leen tey jii nii lu ngeen bëgg moo fi dul am lu ngeen bëgg moo fi dul am lu ngeen bëgg du leen ko fi bàyyee nekkee si dëkk bi caakaay fen njaaloo xam nga eh, eh, eh, mooy yàlla duul entraîner tout le monde si affaire boobu noonu du leen ci bàyyi du leen ci bàyyi jël islam bi jël yoonu yonent gi weddiloo ko nit ñi du leen ci bàyyi balaa may dee may gis ay dooma xaraam naa ma wooy yàgg naa dégg nu naan muur yoonu murit am na ay noon musuma koo dégg ma na leen dooma xaraam yoonu murit su amee ay noon noonom mi comme démb la judd parce que yoonu murit 1927 la commencé doxal di dem démb démb fii la commencé jël benn ampleur di dem mais léegi lu ko commencé nag kolol cent ans balaa muy yegg si donc loolu amul ay noon ñun tamit yàgg na noo dégg ni ko Mouhamed am na ay noon bopp ba léegi nu toog di ko séntu nuy xool fu nekk

on se rend si ñun mii suñu biir rek làmmiñ bu rëy bi sax c' est là normalement ennemi yu ñu doon wax sax nekk tey ñoo ngi suñu biir gars yi infiltré nen bu yàgg rax nu sa rax yu njëkk ya gars yaa ngi suñu biir ñuuxitu laaxi jël yoonu Serigne Touba jël yoonu muritu laaxi jël ko xoolal tourné ko def ko ñuuxit ponse ko ba mu tooy bàyyi faal ñëw taxaw nag jël turu yàlla gi muuroo ko rek allah allah allah suñu woyesoo allah amul leneen lu lay mën a wax amul leneen lu lay mën a wax teg ko si ay bayit ay affaire de sëñ bi nee na sëñ bi jaar na fii sëñ bi dem na fee sëñ bi dem na nii sëñ bi kenn kii sëñ bi def na fële sëñ bi dem na kii mais mu yonente gi wax na lii yàlla wax na lii balaa nu kaa wax fekk nga xoj leen balaa nu kaa wax fekk nga xoj leen de soo leen xojee rek nag nu soog naan la waaw yàlla de waaw ñun de ñun dund ah ñoo nangu yàlla waaw ñun de ñoo bëgg yàlla waa ah yàlla ah parce que xoj nga leen mais soo leen bàyyee seen connerie nga déglu leen yàlla gi fa la leen koy tegee ne leen koy tegee sëñ bi lan lay wax di jënti yeneen gaam yoo xam ne yow sa bopp sax tu ne pas comprendre nee naa leen nga ay doomu raam leen ay doomu raam leen Jules euh, Jouf, Jules Diouf euh, tu ne m'as pas répondu je ne sais pas quoi là on prie avec Roma le chien hein ma je un un ma taxawal sama taxaw si ginnaaw taxawal suis ma cabaron ko ma taxawal di Je si un mu ñëw mu taxawal ma ko nu doxal sallallahu alayhi wa sallam su wote ku ko wuyu si ab julit lu boole la si famille rek manam ni kay yen yena dem kay ba jël ab xaj bu doon wër bu doon wër bu doon wër ay tiant tuddé ko ab mourid moy ñu ah du ko duma ko sax ne mourid parce que nak do jël xaj tuddé ko muridu laa naa ko tuddé ñuuxit jël xaj tuddé ko ñuuxit hein ba paré nag ngeen daali baye ba xaj bi wacc ngeen def ko ngeen ne da ngeen ko sang nonu sang ko defar ko ki ki nangam def ko comme nu ngeen def julli jee nit dem len mais léegi su ngeen paree loolu yéen loolu yéen la concerné yéen a ngi comprendre léegi man balaa ngeen di wax ak man da ngeen may génneel aaya boo xam ne yàlla nee na leen dafa araamal xaj ka xaj araam na yéen da di wax rek loolu de waxu kilifa yu mag yu baax yi la yàlla araamaloo xaj de xaj kay soo ko yorale xale am lu muy jëriñ mu am lu muy def non yàlla araamalul xaj fen loolu kay seen wax la xam nga loolu nañ ñoo araamal xaj senegal dëmm yi seen genre yi dëmm yu mel ni yéen dëmm yu mel ni yee ñoo naan ah xaj baaxul si kër xaj soo ko yoree si kër kër day del parce que xaj day santir xaj du faux xaj day sentir xaj soo ñëwee so loo dugg soo dugg seeg foo esprit wala nga dugg seeg leneen moom da koy sentir xaj du tricher moo tax nga gis nit day ñëw day fëgg sa sa kër souvent muy ñëw di fëgg nga ubbi mu dugg xaj bi du ko faale benn jour mu fekk intention bi xaj lu nekk sa xel lu nekk sa xol da kay jël si léegi nag Sénégal dafa bëri dëmm dëmm yi mooy lan gars yi di ñëw di lijjanti loo loo sóor loo togg añ sa kër nan la fa toogee xol nan la ni souyé quelque ruq djel ay ruq sul fa yenn bagage yi def fa ay ñoo ñoo xamni ko que ñew fitna la ni andale seytaane top leen xaj du len bay nu dugg motax nak du len arranger doma kharam xaraam non motax ñu na la ah, xaj baaxul de ay xaj mom mom baaxul ci kër ki nangam parce que bëgg na no mëna dugg ci bi këru nit ñi infiltrer nit ñi def lu ñuy def miné nit ñi génn te kenn du len gis te xaj da len di tojal xaj da len di yaqal motax gaay di wax rek mën naa leen da ngeen di wax rek instant gii nii lu ngeen di wax ay waxu dégg-dégg na ay waxu kii man dama leen ne ngeen dem génneel ma paragraphe ngeen ñëw ngeen toog ngeen wax ma pas ay waxu diw wax na ma wala wax naa lii wala diw dégg naa fii da ngeen di génn ne ma eh Moussa fii ak fii ak fii ak fii fii la fi sëñ fii la yàlla waxee lii ak lii te lii moo taxoon mu wax lii léegi ngeen comprendre situation yi fii ma nekk man rek a am droit am xaj ak a dagan sama protection samay garde du corps bi njëriñ doonoo am njëriñ ñu fee dama leen di dundal di leen toppatoo nu may nu may surveiller di ma xool ah, waaw dama leen di dundal di leen toppatoo nu yor sama ginnaaw maa la ko wax man rek am waay déggoo lu ma leen wax su ngeen bëggee am lu ngeen di wax da ngeen di dem lijjanti moo gën ngeen di jëm esprit naan ay xaw ma ah ay sept fois ay kii loolu lépp c' est des mensonges loolu lépp c' est des conneries bàyyi faal fas yéene ku ko jël tourner ko eh teg ko fa yàlla daa di yéene sa yéene def lu ngay def eh mu daa di àgg sa xol yàlla jël ko voilà mais nag soo jëlee nag teg ko sa sëñ bi teg ko si sëñ bi yaakaar ko si ni ki nangam boobaas nga gérer kook sëñ bi rek mais doo ko gérer ak yàlla de loolu yaag sëñ bi la sëñ bi nag moom na gérer boppam ba pare sa léegi nag daal di jéem nag xool nag nan la def nag pour gérer la yow loolu ay waxu daanu sareet la déggoo ma de da ngay dem Sénégal gaa yu ëpp xaalis ak yu am daraja yi gaa yi kii soo duggee seen kër ku si nekk ngi takk xaj si ginnaaw soo jugee nag yow mii nii personne mu ne ne la xaj baaxul kii nii nangam pour ma bàyyi eh, ay kaañ la waxu kon la déggoo leen ma de lu ngeen di wax loolu du wax gi wax gi mom moy tontu yi góorgóorlu len am jom leen l'en wax góorgóorlu l'en, tontu yi leen wax loolu leen leen wax moo gën. góorgóorlu len tontu tontu leen leen gën waxuñu len on accepte pas bay Fall on accepte pas les mensonges leen leen wax fen yi leen accepté wul fen leen Voilà. Baye Fall lan mooy Baye Fall nous on s'en fout de Baye Fall c'est quoi Baye Fall papa Fall papa Fall Hein? bai Fall Baye Fall du dara Baye comme ma koy Baye Fall moog Mbàkke yam Dembu dembu len judd amunu histoire amunu dara amunu descendance amunu story mënoo len bolé si dara Baye Fall papa Fall bayo yoo yo boo yoo yo fal mam Fall maam Fall bayo Fall ya yo Fall c'est extraordinaire on s'en fout des Baye nous benn problème Fenni, y a un problème ay Nous Il y a continuer ay fen Il y a continuer am Fenni, am am nous ñu leen ñun ñu wala wax ñu wala a problème c'est pas c'est pas une histoire de ah non su ngeen ngeen ay nit ñu nous chrétien Les ngi ne sont pas leen parce que se gèrent. yaa ngi comprendre ñeneen ak ñeneen ba si suñu mbokk saltige yeeg ceddo yi si biir dëkk bi doo leen sax gis yow dangay nekk Sénégal ba doo sax xam ni ko am na ceddo tout te yaa pour nga wan su la nit taxawul ne la man ceddo laa doo ko xam su la nit newul man ceddo laa doo ko xam tey dini ni Sénégalais yu bëri ngi Sénégal du fa dund boobu ba léegi soo leen jàppee si loxo ne la ne leen fu ceddo yi nekk wala kii xamunu xamunu xanaa ni tey toog ne leen man ceddo laa doo leen dégg si leen mbokk ñu laahi rek ngay dégg si coow li coow li nag n'importe quel coow coow xaliss coow souf coow drogue bi coow fen bi fen dem et les gars nenen ñu neen nañ ko accepter nopi bàyyi non que ay complexe leen que lolu moy suñu héritage que ñun suñu ñu duñ ko waloon sàmm fu ay fen ay fen on doit avoir honte de protéger des mensonges parce que rek suñuy maam ko fen non suñuy mam du len fen sunu maam yàgg neen leen fen sunuy maam doon leen fen ba jël leen jaayi leen jaam dunoo ñëw nax leen fen leen jaay leen jaam ñëw nax leen fen leen yóbbu leen deuxième guerre mondiale nu xeex ji nu nax leen fen leen rey leen foofu ñëwaat encore ba senegal kancaaro fenaat leen reyaat leen yàgg neen noo fen fen bi jiituwul tey léegi nag ñu dem ba fen yi léegi tubaab bi pare du ñu fen suñuy propre nit tamit du ñu fen ànd ak tubaab bi di dem

Isso ada Chandra. Suni maam du leen yàgg ya fen du noo ya sunu Mami musunul en leen wax si fen Len mage. dégg naa ñoom xamuñu woon di jëntiwunu boy 2000 yi lu tax nu kon dama leen di jox ben exemple xam nga yàgg di leen wax di leen kaañoo di clash boy 2000 yi naan booy 2000 yi ay con leen mais xam nga lu tax nu con nee naa leen booy nu divertir leen

mooy mooy mooy borom bég bi temps yooyu noonu booboo doon dox sa bàyyi na am xaalis jënd antenne TV5 looloo la doon tax am CFI TV 2M xam nga euh, jamono yooyu noonu nan euh, moo amoon MCM ay ñoom MCM boobu sa Trace TV ñëwaguloon MCM yooyu noonu si TV5 nga ko doon amee dem jëli ko sa canal Sénégal satala ba amoon satala bi moo doon ubbi midi tëj minuit midi saa yim ubbi ko soo ko ratee rate nga heure añ. soo jàngi jee ba wàcc jamono joon Sénégal c'était la synchronisation midi daa mel noonu ko keur yëpp bokkoon heure bool boo keur buntu soy daw sa di ñibi buntu borom rom ngay deg ñu xoss cin bi crunch crunch crunch crunch crunch synchronisation Salim to di di ubbi saalim tanuma nga xamni ko et ben émission ben télé la won émission était canalisée cible donc lu nga don sétane lu nga don def c'était canalisé nit ñi xamoon nañ ko c'était suivi Lolu motax ñun du koy wax ñun on a été un peu sauvé sunu maam yi nag ñoom mooy loolu ñoom amuñu woon loolu ñoom amaan rajo rek leen amoon yëgunu woon teenunu lijjantiwun lan leen lijjanti mooy seen ileer seen jaas yi seen tool bi xam nga nañ ko respecté yeewu dem bay ñëwaat toog yenn conneries yu gars yi doon wax ñoom lijjantiwun du leen doon fen rek di teg booy 2000 yi nag doomu xaraam yi saagakat yeeg yenn con yu bëri yi nag di wax nii ñoom danoo yeewu nag ñëw fekk sa xolal ba ñuuxitulaahi ñoom seen bopp am seen télé d'endoctrinement ku nekk yori télé fekk na Xadafi ñëw dimbali Afrique bu Afrique am satellite boppam avant ñun ñëpp ñu daal di génne si satellite France France doon nu rey di nu xaw a dajji ñun am suñu satellite bopp ku nekk am sa signal rek le truc est parti en couille président Ablaye Wad di ñëw toog commencé di ko tamit comme du n'importe quoi gars yi télé yi di judd comme xel naa da ngay dem ba vingt télé Radio, yi bul comprendre.

benn émission jeu en herbe je ne le vois plus avant on avait le jeu en herbe amoon nañ amoon nañ émission jeunes yi ñu intellectuel kii jeu en herbe école yi di ko jaayante muy jaar ETS école di Dajé, di def ay question réponse muy neex jeu en herbe booy di gagné ay bourse di gagné ay affaire di gagné ay cahier ay livre di may mais léegi amatul benn don benn trophée buy jang buy may jeunes volonté nous pousse si pour bëri don leneen mais ay don au lan la ay don beure ay don football ay don nek nègre artiste artistes la may ay ay don ay kër may leen ay affaire di féliciter di encourager de telle sorte que toute la jeunesse maintenant ne voit plus un bénéfice d'aller à l'école il faut être un artiste un un bayan, un kat un pamor mbay maintenant pour pouvoir avoir les voitures ñëpp transformé wu c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi ça c'est pas notre héritage c'est c'est pas notre héritage ça c'est pas notre héritage le affaire c'est de l'endoctrinement c'est du vol ça c'est pas notre héritage yeah yeah Makumba tu as raison même les documentaires documentaires, documentaires, nga nga nga sénégalaise gis le documentaire di la nature sauvage

tey nan la ko defaree oh moo tax tey jii nii ñu xam sunu bopp moo tax tey ñu oyof moo tax tey nu dëddu àdduna xoolal mën na leen ah mais moom yen dëddu ngeen àdduna mais moom dëdduwul àdduna wooy la problème yéen ngeen dëddu àdduna yen donc boo lu ngeen waloon defaree seen àdduna ngeen dëddu ko àdduna jël ko jox ko ko moom moom dëdduwul moom dëdduwul mais moom moo leen di jàng nu ngeen koy dëdduwee pour yóbbu leen àjjana sëñ bi defar na la àdduna ak alaaxira moo la defar fii tey ak ëllëg tey bi boo ne ëllëg bi duñ si soreegul parce que ëllëg wóoragunu kenn dellu seegul ëllëg mais tey bi je veux comprendre nan la ñu defaree tey moom moo defaru tey moom rek kay defaru tey mais yow moo ah soo degee nu ne keneen ki ne non bu njëkk ba dama doon agressé dama doon sàcc dama nekkoon si mbedd bi di kii dama doon def kii waaye sëñ bee tax ma bàyyi agressé sëñ bee tax ma bàyyi sàcc ma ne ko da ngay fen ba ba ma nekk ma ne la encore da ngay fen ba pare ma wëlbatiku ne la dooma raam nga mu ne ma ne non yow xaj nga dooma xaraam ma ne ko xaraamata njaay mu ne naa ma ne ko lu tax mu ne ko parce que sa ndey a ngi fi sa baay a leer na ma ne que sa sa baay lu ngay def neexu leen ba koy def yëg nañ ko neexu leen yàgg neen laa tere te leer na ma ne que ñoom tamit yarewuñu la noonu dinañ la yàgg yaree si lu baax di la wax dëgg di la teetal dëgg yaa dem nekk si lu bon lu tax yow loo say waajur lu tax ba la say waajur di la woo si yoon bu baax ñoom tamit def na lu ne déggoo ko nga bàyyi ko fi dem ba si bàyyi jaabul defu la dara waxu la dara topp ko rek ne bàyyi nga ñëw toog non nga ay wax ma ne ay fen la loolu yëfu reewande la man mii ñëpp dox neen man mii dox naa keneen a keneen dox na ba may nekk sa sëñ ba taxul ma bàyyi si laa gënoon mën a dawal parce que sëñ bi daf ma doon sas donc doo ma ne lu nga doon du ñuy duul moo tax ma ne la gaa yi du ñuy

sëñ bi boppam la lijjanti c'est quoi le problème soo nee na sëñ bi non sa ndey su la lijjanti lu lay àdduna ak alaaxira nga naan ma sëñ bi dalaa lijjanti maanaam la bàyyi alaaxira alaaxira du ma si discuter parce que kenn dellu seegul insa sa bu new bu nu newoon moo ngi dem te ñëw dellu seegul donc wóoragul on ne sait kenn ne newoon mooy dellu si mooy insa nekk seegul donc pas, bi on le connaît pas nest ko pas? mais t'es, t'es, t'es, t'es Là, la ñu nous nan nan nit yi da ngay du ngeen di wax da ngeen di wax ne mooy loolu sëñ bi tax ma non non yow yaay jël décision ba ngay dugg ba dem yow yaay jël bon y'a bon sa baax y'a baax sa baaxu ngi comprendre parce que de toute façon bénéfice bi yow la soo bonee di mbedd bi faal kaso kas eh, caabi kaso bi du damm du réer point yow la rek caabi kaso bi du damm du réer du yàq du périmé du xuur mandat de dépôt du périmé bàyyi yow la ñuy tëj di tëj rek policiers yi ñoo ngi noon ak seen i liif kon ba bëgg a dee ñuus bi yaram yi yow la rek bon da nga bëgg a wunde da nga bëgg kon ñeme nga ko dër kiis nga mën nga wasalaam les succès faut porter les couilles faut pas raconter les choses donc ca intérêt nak nga bàyyi ko nek nit tamit nga am sa jamm defar sa lo nek fi nga am jamm donc c'est toi soo dërkisee so beugé kou lo news nga beug ku defar sa yaram bi ku koy nodanti bandi bandi lul nekkal ci lu bandi bandi lu bi nek ci lu ni ki di wax nga doxantu ya ngi comprendre ga ya ngi non comme ni ma ko mandat dépôt yi du jeex caabi gi du dam policier ngi noqe ba légui tapo nu fenn nu kenn ñogi nonu point barre légui damal nga ne si ila nak nga daal def sa temps mu jeex nga xamni ke njaboto njaboot a ngi ñëw nga yee bop yeureum yërëm sa ndey yeureum say wajur lem sa gene lolu aussi c'est un choix mais nak bu len demee pare wëlbati ko ñëw naanu sëñ bi la sëñ bi sëñ bi la sëñ bi sëñ bi waa léegi sëñ bi nan la ngeen saaga sëñ bi fan sëñ bi naka ngeen saaga sëñ bi waaw kii ni nangam ngeen saaga vous n'arrivez même pas à expliquer ce que vous vous êtes en train d'exprimer vous n'êtes pas vous n'êtes même pas capable d'expliquer vos sens votre sensation y a ressentir votre ressenti vous ne pouvez même pas l'expliquer tellement il y a trop d'émotions mélangées mélanger. Vous di ça à rire, hein da ngeen di ça. alors que nous ne fi c'est pas méchant c'est pas méchant man comme nous ne ko yenn bàyyi vous bàyyi foo yi ni di des di dal di des non ngeen ak xam nga man la la des di coono bu fi jóge moom laa leen di ñaanal pas dëgërante bopp pas xëcciwante jaayante ay affaires yi talumaa jaayante mbindeef su may jaayante damay jaayante suñu borom su may jaayante damay jaayante am place xolol cheikhul ñu ngati euh, xaadimu rasul comme yéen ni ngeen koy wax loolu laay jaayante mais pas ak nit a ki bakkanam boo xam ne que lu may wut man moom noonu non lu tax may jaayante du ma ko def yéen a ngi comprendre donc nag tey jii ni lu ñuy jug du leen wax yéen su ngeen demee ba mënoo leen expliquer wala mënoo leen wax mënoo leen kii da wala mën a tëj seen gat

sama xaj yi sax ngeen di waxal nii di leen jéem a kii sax ñoo man lu ma leen di wax mooy lii de seen naqar laa bëgg mu dañ seen naqar laa bëgg mu dañ yéen a ngi kaw di tëb leen rek laa leen di wax comme nu ma koy waxee rek su ngeen mënoon ku romb saaga bàyyi tur nu boole la si bi dina baax de pour rek wal leen ni que après màggal Touba problème problèmes vont rester màggal dem màggali n'arrange pas problème problèmes de Touba n'arrange pas votre problème et ne changera rien dans ce que le calvaire que les gens tout cela c'est de la mascarade point barre point barre ngeen bëgg magal, magal benn fan la benn fan ñaari fan ñukoy lenkeli ñettelu fan gaay yi leen leen affaire ñu nekk ñibbi jeexna et la vie continue on retourne maintenant à nos pépins légui nak la quoi on va voir ndax Touba va être meilleur ndax ndox bi dina fi jóge ndax xam nga nit ñi dinañ dund ndax liggéey dina am ndax nit ñi dinañ tok ndax gaay yi sëñ bi dina on va voir est-ce que ça va changer nu xool ndax màggal bi dina changer Sénégal ah, dina changer dara wala sax nu xool ndax corona bi dina fi jóge on va voir on va voir rek yan kay nee leen ñaata année santa ans ah sëñ dee fi woote màggal ka yi dañoo foog ne Serigne soo jógee naan Serigne Touba woote màggal loolay fen la de Serigne Touba daa ne màggal mais newul ku nekk na ñëw foo ko màggalee woon baax na waaw. màggal gi foo ko màggalee mais bis bi ne ko ku nekk fàttaliku toog màggalal ko ko voilà loolu la foofu moom foofu la ko jógee musul woote Touba sëñ Fallou moo woote Touba waaw sëñ Fallou moom moo woote Touba te sëñ Fallou boobu noonu tamit dem na màkk de am ne nee neen Baye Fall duñ dem màkk waaye de si sëñ si si Baye Fall yi moom de dem na dem na de waaw kenn terew ko ko gars yi posone ko nag parce que moom moom moo nekkoon branche islam bi dafa gëmoon trop yàlla moom moom dafa commencé woon leeral ku ñëw siar mu ne la ba jaar nga siar ba jaar nga njaareen siar gaay sisu gaay ne ëpp abo ngi klaté dil de gaa bo ngi klaté dil ki nenen bay fall nenen ka ba gaangi euh, euh, bu kenn dem makka mom mu dem eh nuy date away, mom mu woote fi ma nuy deeta waay nuy wax ku ñew mu la ndax taxaw nga si señ bi ziar ki fokk nu faagagal ko gaay yi posone ko señ fallu gaay yi ko posoné de ko faat ngir rek alalu aduna moo tax gisoo leen sëñ Assane Mbacke andi nu Fallou Junior billaahi koo koy situation bi yàgg naa leen ko wax sëñ koo la situation sëñ Fallou bu demoon dikk na de ngeen hmm. dee leen xaar rek sëñ Fallou bu demoon dikk na de sëñ Fallou bu sëñ Assane doom bu judd rek siw tàng jër judd bu tàng jër comme turandoom doom doom boo xam ne ni que daram seddul dafa ñëw fu tàng wax gu tàng wax la ñëw lépp tàng comme turandoo lépp a met billahi ko koy ñew régler la situation seigne fallou bu eh, bu nah seigne assane mbake gaay nan ko seigne assane mbake ñu nan ko assane gueye waaw assane gueye papier de naissance doomu jiit la la du sax mbake mbake doomu jiit la la après la yaayam sey ak mbake mbake affaire yi neex mu jël turu bayam sandi ko dem sante mbake ngir mëna langé ci affaire yi di dundu non mais c'est formidable quoi mom pays formidable alal bu mu daral nit ñi billahi xala xaliss mu jaral ñen ñi c'est magnifique quoi ci те, те, те, те, те, те, те, те. Па, па, па, yi man daal comme ni ma ko waxee xanaa yàlla jàppale yàlla sutura képp ku foog na ni que Serigne Touba Serigne Touba moom leen yëpp nan la fekk nga nekk si yoonu Serigne Touba ba pare nan la fekk nga nekk si yoonu Serigne Touba waye jaxan di saw ah, ba pare ñëw di wax naa ni ay affaire de ah Serigne Touba Serigne Touba lolu ay waxu daanu sareet ay waxu daanu eh ndongo fal ndongo fal neena mandi mandikat bi daf ma jaawale Cheikh Modou Kara eh eh eh ndongo ko ma jaawale Cheikh Modou Kara man duma boy Kara de duma boy Kara duma boy Bas ma lo musa musa ma Kala xam nga kala kala ak kara nak bokul man la kalamu la ni nan ko kalimula la billahi wallahi wa kitabin ma la ko wax de sa way daf ma jawale daf ma jawale cheikh modou kara sa way di teural bouteille di te du mandi en tout cas cheikh modou kara nga xamni ko boyam lepp daf ko mandi eh daf ka mandi boyam lepp teul cantiyam mandi nat nat nombal batu sidi nore ousmane nore ni bi kay Eh, natt ndombal baatu baayam mu jot ko rek nu daa ne moo ngi noonu kii yaar waar yaa travers des fak yaa uy sama ndey <laughs> waaw man daal maa ngi dee man booy karaade ak ay ñoom booy bas non gars yi xoolal dinoo am ay taawu mandikat bàyyi leen fële nu toog ñëw di leen wër si réseaux am ay naaxu pervers ay pédophile am nga ay violeur ay profiteur ay nuuru katu buuj bàyyi leen fa leen nu toog ñëw di leen wër si réseaux sociaux yi yor ay naaxu trafiquant jaaykatu bon jaaykatu arme xam nga taxawaalu lépp ñu bàyyi leen foofu Nous di leen sur les réseaux sociaux Nous wër ay góor jigéen tamit nag ay xeesalkat góor jigéen ay borom bañu efféminé réseaux sociaux mais man gars da vous allez me tuer nee naa toujours doit être toujours le dernier à parler au Sénégal ñuuxitulaahi ñoom dañoo wala bàyyi ba Sénégal ñëpp suñu doon décision wala ba gars wax ba Baye Fall ba kati jantaal yi sax wax may kati jantaal ñax yu bon yoy, nepp wax ñom ñuy soog am la parole parce que kenn mënul comprendre qu'est-ce qu'ils expliquent et qu'est-ce qu'ils veulent sur des simples questions nak les gars partent de tous les côtés nga laccé question mu melni sabar bu tas bay gaay di jaar gauche ñi di jaar droite ñi di teul si kaw ñi di tepp ñi di yu simple question gaay melni fanfare hay gars dal daal man nee naa su ngeen demee ba mënoo leen tontu nak ay question donc moy luma len wax donc yeen Sénégal ba mu daj vous devez la fermer vous devez la fermer yéen ñëpp wal ne no mën wax tout le monde nee naa ba ci ñax yu bon dëkk bi kati jantaal nga xam que sa xar da koy romb du ko lekk fas yi duñ koy romb ni ñom mën na noo ubbi seen fleur yu weex yi sax wax ba ñepp paré yeen ngeen di soog yeen amo len tontu nee amo len dara amo len iman amo len dara rien jom sax amoo leen ko jom bi mooy lan jom ñàkk xam toog déglu xaaru nit ñi xaar parce que loolay jom soo demee ba xamoo nag nga dox nag xam ni que xamoo da ngay tëj sa gat xaar nag pour xam nu xamal la mais jom boobu sax amoo leen ko bu devez la fermer devez la fermer ngir yàlla quoi ngir yàlla rek maa ngi wax tamit keroog am na benn borom baax bu ma woo ne ma da doon seetaan sama vidéo ak ay am wala xaw ma ay affaire copine yi naan ko ah non kii duñ ko seetaan parce que dafa yoroon di curdan, ok di secret ok di kii man moom damay faral di xaale ma nettoyer caméra bi caméra bi daa mel dafa tirim man moom damay faral di wax quoi comme nu may on n'est pas venu ici pour faire le beau wala pour faire le mignon wala pour plaire à quelqu'un wala pour charmer les jeunes filles wala pour di jéem a kii je suis pas là pour ces conneries venir xam nga wane faire l'élégant xooyee koy ay affaire kii non on est là pour dire des choses qui nous tiennent à cœur régler des trucs et poser des questions point barre Légui nak lolu ku muy énervé wala ku si gis leneen wala ku qui ki nga dem feneen ay diw nii lay waxee diw këree nga soo xoolee sooy wut ku lay charmer wala nga sonn sooy sonn wala nga xooñ say xooñ wala je se sais pas quoi ngay xool si réseaux sociaux ay góor yu mignon wala ay jekk ay affaire de kii c'est pas ak man man aw temps boobu aw ma temps boobu man ab undu laa kon laa ay kii kii comme ni ngeen ko waxee baax na y pas de problème lu ma amal problème lu ma soxal mooy instant gi fen yu metti yeeg sama diine ak sama islam quoi yéen ay affaire esthétique moo leen sonal ay soluwaay ay taxawaay ay kii am na lii am na lële taxawee na fële taxawee na lii man je suis pas dans ce niveau quoi loolu c'était juste euh, une parenthèse léegi nag lu ba koy waxee rek tontu yi tontu yi su ngeen nu si jàppale billaahi dinañ jël su ngeen nu si jàpp walla boobu ba léegi nee naa leen tontu yi en fait mooy sama njëgu avion su ngeen ma tontuwee ma ñibbisi man maa leen ko dig nee naa leen lan laa mënul mooy ñibbisi te aw may tontu da ngeen may tontu nu régler problème bi ba pare ma ñibbisi su ngeen ma tontu ma xam ni que léegi man samay tontu sécuriser naa ko xam nga léegi génération future bi dinañ si mën a jëriñoo nit ñi dinañ léegi man dinaa mën a ñëw xam nga asaaloo asa bombe coolul asa bombe, comme ça part ça part en couille mais asa commencé asa bombé d'autres am tontu tontu day asa bi comme ça on perd tout on aura perdu du temps on aura perdu de l'énergie on on m'aura insulté gratuit et je n'aurai pas mes réponses et personne ne le saura et personne n'osera encore poser ces questions peut-être fi que euh, des années en avant génération bi ñëpp ci gën parce que duñ may jël man comme exemple tek ma ci kanam use ma comme emblème ni que gis ngeen ñun fi defoon Moussa Camara ku ko fi laajati ni lan lay def bala may ag ci grade bobu non vous me répondez ma tek ko ma sécuriser samay réponse suma ma sécuriser samay réponse légui nak man mën naa ñëw quoi xam nga ma daal di naaw xam nga ñëw légui y a pas de problème voilà légui daal xam nga ngeen ngeen ngeen def lu la neex ngeen def lu leen neex ngeen topp ngeen naaw ngeen yuuxu ngeen jooy su ko neex man sa mën naa may sa tànn biir balaa ngeen may faat voilà comme ça dëgg bi feeñ na ba pare quoi dëgg bi feeñ na ba pare dëgg bi moom rek jarul ngeen di jooy man lu leen métti méttiwu ma yàqamtiwumaa ñëw Sénégal xam nga Sénégal balaa mu ngeen nga doon jooy sa naa ma kañ ma yàqamti koo ñëw Sénégal jaar yoon mu neex nit ñi respecté wu président bi respecté da ngay yàqamtee sax kii jël vacances mais lii dëkk bu ndox manqué courant manqué mu taa inondé yooyu fees fa deel lan laa fay président bi jàpp di tëj mënoo faa wax dëgg ki yàqamtiwuma sax yée non mais mais aye ah, wut fa lan bañ sa bopp xanaa daa dëkk boo xam ne ni ko soo waxee kaay leen nu dem lijanti jënti non seen propre koñ ñoo ngi ko bàyyi mu inondé dem di jaay bàyyi faal bàyyi faal ñoom ñëpp nangal dem taxaw yi Touba di gase ji ay affaire kay mën na noo dem lijanti jënti sëñ bi buntu këru sëñ bi mais ñoom seen buntu kër duñ koy bàyyi noonu mu tooy wallaa yàqamtiwuma de man kay may toog ba prochain président ñibbisi ba mu liggéey ba ma xool xam ni que dëkk bi man tamit mën naa see dem def si sama ak def si sama kàttan may soog a dàqante nu may ñibbisi mais léegi dem Sénégal ñàkk xaalisa la dem Sénégal sax ne da ngay dem vacance wala kii ni nangam da ngay ñibbisi gën a sonn ànd naqar gën a mer gars yi miira sa ndey te deewoo chaque dem Sénégal ñibbi si vacances expérience ngir taliban de gars yu sonn yu xooñ kii koo si ne jugal kii muy réewantalo kii ba pare ñoo la naa ñëw lan laa fay wut bàyyi gars yi ba sa sa ba mbabal duñ koy jël waa eh li caleçon Calvin Klein la sol eh Gucci la de waa baay faal bii da nga koy bàyyi lii sama caleçon la bàyyi coolu dama koy foot bàyyi dun maa mirage ba mirage bàyyi dama mu sotti bal yaa ngi lay yi nga sol mool na de waaye eh, waa yii moom kii nii eh waaw xanaa fi nga koy bàyyi lan lay dàq foofu bon yow dëkk boo xam na ni que gars yi ngay dem bàyyi vacances ñibbi si bàyyi coono kese diggante dangay ngay toog sa oto diggante Liberté 6 ak laa lay wax ne Nord Foire wala Liberté 6 Ouest Foire xol bu bon nga si jëlee oto bi deux à l'heure taximaan bi jaay la prek wala sooy dawal sax yow yaag talibeeg gars yi am waayu nee naa soo taamee dëkk yu développé yi soo ñëwee Sénégal da ngay sonn embouteillage y' a pas de feu amul feu. amul signalisation amul panneau amul dara sareet yi fas yi puu bi dof yi nit ñi jéggi bi passerelle yi gars yi bàyyi lépp yow sax soo yegsee da ngay réer naan mais man nekkatee ñun ay lii laa doon dudd lii ay dof leen parce que soo commencé yàgg da ci prendre des habitudes man nee naa la dem naa ba am ay habitudes bi laa sama vacances yi passé dama doon dox yor kaasu café Touba bu jeex dama koy téye laa ay minutes ba ape sama gars yi doon may xool naan ma mais yow kaas bi doo ko sànni mën naa leen waaye bëgg naa kaas sànni waaye boobu ba léegi maa ngi dox pour lu mbalit laa gisul gay na ma mais yow da dof de man ne la ndeysaan jikko yee ma dama ko commencé tam dama kay tam ma ngam ko da ngay nan ba pare sa tey kaas bi di wut foko san wala lek ci ngom wala dagay ba pare jël ah, affaire dugaat ko sa poche yaa ah, ma kay kay kay kay kay kaay hmm, kaay Sénégal lan laay ñëwul senegal li jent len Macky Sall ba pare ndokh gi li jent len Macky Sall ak ndokh bi yéen ku leen cotiser ngeen di wër ñoo toog Sénégal dëkkay cotiser rek dëkkay cotiser doo liggéey de cotiser ngay def Sénégal ñëpp ay cotiseur leen Sénégal est-ce que am na ku dul cotiser Sénégal ku nattul yaa ngi cotiser yaa ngi ñun ñëpp ay cotiseur leen toog di cotiser rek sans intérêt nag sans bénéfice ni ni ni dividende comme ni nga koy waxee cotisation rek pétante juuti ñëpp ay fay juuti laa lay wax pétante ki ay kii ba kër gi noonu leen nu jàppee mbaam yu jàngul jongul semde yi yore nag nguur gi di ko diriger ay ñaari poste toog di fayee ko ay millions ki millions millions toog di lekk xaalisu cotisation gars yi ñun nekk fa rek jëm ko wax ne la waa yow da ngaa alag yow moom da ngaa alag koo si bëgg a yeemu na la da ngaa alagu koo si bëgg a yeemu yow da ngaa alagu gars yi bëggunoo yeewu da leen di yeenu pousse ne la hmm, ay mën na la c'est des fainéants jugal julli jug leen jàngi ñu tëddaat mooy genre yi Sénégal a ngi noonu jug leen julli jug leen julli gaayi yi tëddaat jug leen jàngi jug leen jàngi nu tëddaat billaahi <coughs> man gaa yi ma gaañ Eh, Diagne Mara Diagne nga ne sama yaay da doon cagatu man may jaay yàmba ba pare non xam naa yow sama yaay ba mu doon cagatu moo sa yaay ñoo àndoon ñoo bokkoon tali bu ñuy taxaw trotoire bi noonu nga xamee ni que sama yaay da doon cagatu parce que sama yaay sa yaay ñoo bokkoon trottoir te dégg naa sama yaay ak a pankoon su taxawoon si trottoir sa yaay daanu fa taxaw day doon ñuuse nga doon ñuuse looloo tax nga koy ku ba tey sama yaay ak sa yaay ñoo bokkoon trop te sa yu sama yaay monté won sa yaay du du waccé dara ngir sa yaay dafa ñaawon sa yaay mooluloon sa yaay amuloon forme amuloon dara luy attirer goor motax sa yu sama yaay monté won mom su taxé won ci tali bob sa yaay taxaw da ko do news tëbal ko mu tëdd té du ñibé ak dara no lo tax ngay fatali ko sama yaay ba léegi motax soma soo da ngay tit da nga naan ëpp doomu ku doon nokku sama yaay baa ngi nee noonu nga xamé ni que sama yaay cagala waaw bob maa ngi jaay yamba ci bop koñ bi temps non say mo yi ma doon versé sa serigne la ko don verser sa serigne bobu nak mo ngi tok si bop koñ bi mok sa petite sœur di di di ci dugal moustaasam bi di diko di bobu laso boobu sa sëriñ boobu noonu ngay tok di wax mo say ma demee ba diko yobul versement bi mom lay fekk mu ouf sa petite sœur tek ko ci digënté tank bi di lasso billahi di lasso lasso yu jaar yoon sa ma la wax lolu lu leer la lay wax rek pour vous dire yan taliban di nan sama yaay ciagalawon ay keki nangam da ngeen wala xam ni que sama yaay ak seen yaay ñoo bokkoon trottoir te sama yaay moo gënoon mool seen yaay moo doon encaissé moo doon encaissé tali bi moo doon encaissé xolol ale boobu noonu su doon taxaw seen ndey du ñu taxaw seen ndey danoo ñaawoon kenn nobu leen woon kenn mënu leen woon kenn du leen xoosa ba xembem leen moo taxit ay bataar yu mel ni yéen rek leen jur ay con yu mel ni yéen moom leen jur léegi seen maaraay sa bëggunu seen yaay seen maaraay seen petite sœur yi leen bëgg seen petite sœur yi la ñuy jàpp di ko nuuru buuj so señ Assane kolo xalé bu ndaw bu mu biiral motax muy daw parce xalé la yoy mo leen neex yooyu leen di cuci borom ciusi di sogu a borom doomu li moy ak borom doomu pample musi, fof ngay dem motax giso señ tuñu fo leen fi ñuy wax ni fof la ñuy dem taf sen lami làmmi ni xam wah leen moo tax leen wax dara du ngeen wax dara leen wax leen wax fulu mënoo leen wax fayda mënoo leen wax jom waxu dof rek doomadaam parce que seen kilifa yi tamit seen gémmiñ yi si su fu doomaraame rek lañ koy dugal suñu paree duñu wax jom jom di leen wax waxu doomadaam moo tax yéen tamit taalibe yi doomadaam rek ngeen mën a doon ñii rek lañ mën a demee c'est l'histoire retiendra c'est l'histoire retiendra laa lay wax wallaay wallaay l'histoire retiendra laa lay tegal ni ah Babs Diallo nga ne lan ma bàyyi yuut bi non du ay yuut ay sifaay la ah yu sëñ bi sëñ bee ma dàq yuut donc saa dama leen di sifaay soo jàppee ni que damay yuut rek jàpp ni ay sifaay la jàppal ni kay sifaay yow neel amin rek yow sëñ bi yuut na sa sa bopp bi ba mu tooy xepp yow sëñ bi lu mu yuut si sa bopp bi est-ce que yow soxlaati nga sooy raxas sa bopp bi dégg naa yow sooy sangu dangay ngay def ndox rek xëbal mu xëb parce que sëñ bee si yuut ba nga xam ni ko bul comprendre saa yoo demee sëgg muy yuut si saa yoo demee sëgg muy yuut si ñuuxitu laax yi suñuy raxas seen njoñ yi ak seen bopp yi moo tamit forox de gisoo bo rasta rasta bàyyi faal yeeg kii forox bi forox bi forox bi soo xoolee forox bi xetu gémmiñ lay gën a jege sax ko foroxu bopp xam nga xaraw daa ma xetu boppam mais xetu gémmiñ bu ndul kii bu xeeñ bu yàgg nii tuflit bu yàgg moom la bopp bàyyi faal ak nu ndëpp ko nag boole ko ndëpp ko si ay ñaari ñetti laafa laa lay tegal dox ak moom si quatre-vingt-dix degré xoolal muy togg parasite ak bactérie wu gémmiñ bi affaire bi ne bund moo tax du ñuy firi njañ yeeg affaire yi ne nii nga dégg xoolal affaire bi yooyu wàññi di ngay gis yoo timis di nga gis yoo biy wër bopp Baay Faal non xet bee leen di rey duñ koy simmi rek yooyu kadaabare laa lay wax sëñ bee koy yuuta yuuta yuut ba doomaraam yi suñuy raxas seen bopp yi ñuy def ndox rek suñu tawtee suñu naan nii di xëbal rek mu xëb du naan nii rek xëbal mu xëb ngir gu bëri yër yóot gu bëri ces petits cons tontu leen nu tontu leen nu leen leen wax Ami Fall yow looloo meti metti nga ne sama yaay duñ ko doon juutal looloo la yow yow looloo la metti xam nga au yow nee nga sama yaay duñ ko doon juutal mais yow sa yaay kenn juutalu ko yow kenn juutalu ko mais sa papa lañ juutal c'est que en fait c'est ça le truc yow sa yaay kenn juutalu ko nga mer sa papa kenn juutalu ko nga mer kii kay sa tante yow sa yow sa sa bopp kenn ju mais sa baay lañ juutal yow yaay la seule fii la seule personne boo xam ne ni que tu es venu d'une d'une grossesse d'homme yow góor moom moom leen laal def si moom miniw mu mi même pas homme porteur wala nangam de mais du nga laal mu biir sa baay moo la jur yow te yow ba ngay jur du du laa ngelawal du laa wa du noné ni rek né ni ps nga genn lolou mo la metti motax ngay wodi di yow mom sa yaay du laa juutal ok suñu juutaloon sa yaay tamit yow sa yaay su kam ko motax ngay mën di taxaw di wax yaay jaamu yu nu juutal yow sa yaay mom ken juutal ko sa papa len juutaloon au contraire lolou motax sa papa leen error, danoo def eh, eh, erreur mistake lolou la metti motax ngay wodi yu sa grossesse d'homme tu es le premier avec les nourritures tout est possible avec les là tout est possible grossesse d'homme mais avec les tout est possible prière dans la mer c'est possible De c'est possible jël te c'est possible hein? jël nit euh, comme nous ma koy waxee tëj ko ci four tamit te du lak c'est possible hein jël nit ko xam ne que 1927 bi ni ni la gañu yobou ko ba jamono yonent gi mu jël place yonent gi toog changé c'est possible donc avec les ñuuxitulaaxi tout est possible donc grossesse d'homme c'est c'est possible avec les ñuuxitulaaxi yow gor mo le bir, c'est possible su ngeen possible tout le reste là dem ba ne seigne bi moy yalla ba dee ba possible lol non donc bi tamit c'est possible de ah oui ah oui Falilou Fay hein? non Falilou Fay je vais te dire quelque chose c'est comme ça que je fais mes lives je n'invite personne j'aime bien répondre aux commentaires nii laay live chacun a sa couleur xam nga ceeb bu xonk bu xonk la bu mais sois agé.

Ah, Abdou Ndiaye waayooy ne eh, nee na ko sa baay koyom bi daa gàccu doo waraami ijoo de puuta sa papa amul dara dara dara dara dara sa papa amul dara man sama papa mas am na bu gàtt mais yow sa papa amul dara ñaari jigéen ñoo la ñaari jigéen ñoo la nga ñaari jigéen man nee naa la man balaa maa dee ñuy xaste parents mooy ñoo xam ne ni que am neen 33 maam yu nu mënut a expliquer 33 maam yu nu mënut a expliquer 29 bataar 29 xaraamata njaay 29 xaraamata njaay laa lay wax voilà loolu moom xaw ma nag nan lañ ko mën a gérer ñoom nan lañ ko mën a lijjantee mais ñoom daal ñoom ñooy wër laa la wax di saaga ay nit ah 66 gos 66 gos yi kon moo ko waxatee 50 yëpp nekk ay bataar

ay tantam ay yaayam yu ndaw leen man lool laa mënoon expliquer nga am ay tante nu nekk say mama ça va être bizarre nekk sa tante nekk sa yaayu jiit la nekk sa yaay bu ndaw tamit mais inceste yaay sas onze billaahi jàmm onze billaahi jàmm ah, eh, eh. waaw waaw waaw eh, ron nee na ma xawma lan c'est xaw waaw lan sa kiiwu ndey xawma lan c'est sur que y a certaines personnes derrière toi ah yàlla rek sama ginnaaw te yàlla ku mu nekkal moom day diis de day mel ni ay conteneur a nekk sama ginnaaw est-ce que yow néew ma saxaaba yeeg baaxaaba yi sax te gisuma leen doy na waar de mais daal yàlla laa àndal ak yonent gi ak samay waajur léegi nag yéen su ngeen demee ne ba santé ni ko wax gi daa diis ba daa am lu mu àndal ba am ñu ma àndal comme daa mel ni yàlla yónnee na ma militaire am yeeg soldat de waaw waaw daa mel ni que yàlla yónnee na ma soldat am parce que man moom laa àndal donc xam naa moom ngeen di sentir de amaana de moom ngeen di sentir noon xam nga amaana moom ngeen di santir quoi mais man moom yàlla laa àndal voilà moo nekk sama gannaaw yàlla rek ginnaaw yàlla ak yonente gi bëgguma dara point voilà moo nekk sama ginnaaw moom ngeen di santir noonu. su ma tëddee mu feñal ma ay gentu ma yew ak sama laxalu gént xam nga tok tok da ne wala bi de fi de xara ma tal sama telephone tal sama telephone jàkkaayu ko yéen shifa yelen ba ngeen nice da di raccrocher wa dem tok xar lu may waxat rek nice ma peyoru yalla mo gën payoru doomu adama ak xaliss bi jënd aljana man yalla moo may xolal bayal sama aljana ba mu nice fi la koy liggéeyee si yeen dimbali len billahi dimbali len man mom sama àjjana du ma ko liggéeyee ak i joxe xaalis ak kii dama koy dim dama koy lijjanti si liggéey li xam nga dimbali leen yéen yiyee leen ba ngeen yeew am si àjjana nu daje foofu sa kaw sa boobaa comme ça yéen ngeen lijjanti seen seen maaraay man ma daal di lijjanti yoon wi man damay yegg si rek fëy fëy yii ah, nekk di topp ay rang yegg si rek man buntu bi lay xool di fëli fëli man ki kii nangam ak kii naan maanaam saa bàyyi du ma tal saa ndey ngi xool sax man nu ma leen nu ma leen bëggee man moom moom damay romb rek saa di leen ñaan rek daal di dem fay fay kay laa leen di wax eh eh eh eh, eh. eh. maa la ko wax de nga ne Serigne Touba la lan xaaral yow ma wax ko ndànk man ñemewuma tay damaa xaw a ragal quoi en tout cas da doon ah bégal na 33 femmes jox leen 66 gosses am temps wu bind nag 7 tonnes ma looloo may faj murid yi ñoom foofu rek la waloon toog ubbi waa seen bopp xam ni que fen diis na de loolu war na garaaw de 33 femmes 32 ans sur le hein, 43 ans de liberté 21 ans 22 ans le commencé faire. ah kenn a nan la fa 33 femmes 66 66 d'hommes, pour 7 tonnes et demi da di bind ah parce que tamit 33 femmes comme je ma ko 33 femmes 33 jigen yu wouté. bëggal yomboul jigéen dafa wuute am na jigéen ñu gaaw a bëgg jigéen ñu gaaw a kii jigéen yoo xam ne balaa nga leen di bégal jigéen yoo xam ne benn du leen bégal jigéen yoo xam ne moom foog nga bëgg bégaat ku si nekk ak nu mu demee ah man daal comprendre ma comprendre ma daal am na am na Nunca é batido. Tarantula farm, am na tam yep. Ah, No. Eh, ro ro ne na cocaïne bi moo neex. Non, yéen suñ leen cocaïne ngeen dem, yéen njar bee leen jàpp. Njar, njar bee leen jàpp. Café Touba bi, nee naa leen bi. Ak eh, bëgg lekk rek fokkale. Seen yaay jàng nu leen on ne mange pas partout. Loolu tax tubaab bi ñoom seen doom du leen koy jàngal on ne mange pas n'importe où partout du fu nekk la dem di du lekk bu lu la tàllal nga lekk ñun nag Sénégal danoo tàmm naa la teraanga teraanga lu la jox nga lekk kaay suy neen leen suy leen duy leen ba ngeen lóot saafara leen ba ngeen tooy xeeb xeeb xeeb yeen kay Baay Faal yen lii ah am leen jàmm nee naa leen café Touba bi su ngeen ko moytuwulee fenn du ngeen ko dem fenn du ngeen ko dem fen du ngeen ko dem yan kay boy da leen dox rek comme que yéen a ngi wax nee naa leen xaar leen rek prochaine prochaine arrêt bi prochaine fois bu waa Interpol di wàcc Touba du gis ngeen waa Interpol saa yi nu wàccee Sénégal Touba jumali oto yi oto yi sax kilifa yi dawal majorité ay voiture volé ma wax leen ko nag pour ngeen comprendre seen oto yu bëri yu ñuy jéem kii sax kii ak ndaamaar yu naaj si nga ay voiture volé ay oto nu sàcc yooyoo fay andi xolol waa FBI ak waa CIA souvent ñu investigué ba foofu voiture volée yi léegi surtout nouvelle génération oto yi day am ay GPS day am ay tracker bàyyi faal ngay gis bàyyi nee naa la ñuuxitulaax yi sàcc leen mën doomaraame jubunu ñu si bëri ñu fi nekk fii nii sax di def business di kii di lu ñu leen nekk du ñu def mukk lu jub jubunu jubunu du ñuy ñëw fii ànd ak doomaraam yi sàcc oto yi daa yëpp ko si ay camion yóbbu ko jox ko sëñ bi jaay ko foofu na di jaay ay nguule ñëw di ci sol isbu du ñu jaay jub fekk ni que fii suñ fi nekkee amuñu liggéey def na jaay drogue lañ fi nekkee yónni booy nuy sàcc di ay receleur receleur yu gën a mag Sénégal sax encore ay mbàkke mbàkke leen maa leen ko wax billaahi wallaahi wal kitaab receleur yu gën a mag Sénégal c'est mbake mbàkke man maa leen ko wax ay mbàkke mbàkke leen ngàdd yi receleur foo leen gis lu nu yor lépp alalu resel la <laughs> yéen toog leen foofu noonu Interpol a ngi ñëwaat beneen yoon bu Interpol di wàccaat di ngeen comprendre yéen kay gouvernement bi looloo taxalal sëñ bi eh, sañu noo wax dara dara gouvernement parce que sa yu Interpol wàccee gouvernement bi xam na lu fa andi Interpol te toujours nag ay Touba la ñuy dugg ak gars gouvernement bi xam na la appe gars yi suturaale ñun ñoo dul xam lu xew gars yi noppi secret yooyu noonu la gars yi xam ba nga xam ni que sëriñ yi ñemeew nooyu danoo nekk su lu bon danoo nekk su lu bon ba nguur gi xamal leen ko jàpp leen nu téye leen nguur gi protéger leen protéger waat leen xam seen i secret nag léegi nag c'est ça pay moo tax léegi nag loolu nu wala fay mooy lan jaay nu ñaata foo oto leen fa dugal xam dugal fa ay cocaïne dugal fa ay affaire yu nguur gi jàpp tout dernièrement jàpp nañ fa conteneur cocaïne si port bi gars yi di wax di ko ay affaire yoo xam ne ni que toujours fin bi soo demee gars yi kenn du bëgg wax ko moom mais ñun xam nañ Sénégal ñan leen dul tudd toujours ñu koy ñu ko dul moom su nekkoon waa nguur gi ñu tudd ko léegi mais ñun suñu bopp ñun suñu tuddulee rek ñun xam nañ automatiquement ñu ko moom ñan leen bëggul seen tur toujours di melew à certaines choses xam nañ leen xam nañ leen léegi nag dañuy xool nag si ban piis la léegi nag soo xoolee nga xool nag piis ñoo ngi noonu ñooy def lépp ñoom la ñoom la laa ilaha illa nee len da len dam rek da len wax rek di saaga di tepp man ma ngi ak yéen de du ma len bàyyi nee naa ans fu ngeen dagale may éclaté len fu ngeen dagale may exposer len comme que nak da ngeen bëgg di wax rek fu ngeen dagale na len exposer dina yéwaat nit ñi ba nu xol di len bàyyee xel parce que yeen vous voulez passer derrière vous voulez faire des choses con yo xam ni ko moy lool mais du fi jaar du fi jaar du fi jaar la lay wax la ilaha illallah yeen kay boy tok len rek di wax nee len eh trafiquant yi gën a mag Sénégal kilifa diine yi la mhm. euh, anamu le blanc cassé star xam nga lu gën a neex si arme yooyu ngay laajte xam nga gars yi am na loo xam ne leeralu ma leen ko wala ñoom bàyyeewuñu ko xel xam nga arme yooyu noonu ngay laajte xam nga lu si gën a neex lu si gën a neex mooy majorité wu arme yi local la ay arme local la woon ay armes locales moy ay armes yo xam ni que Touba lañ ko défaré quoi en fait ay tëgg donc ça veut dire que ñoom am len ay tëgg yo xam ni que ñu ñu jël loger len fenn ci biir Touba ñu yor ay local wala ñu yor ay matériel yo xam pour defar ay armes artisanales parce que lool non nombre de bu toll noonu ci pistolet artisanal il a des ravitailleurs il a des ouvriers il y a des ouvriers lu leer laa lay tegal parce que tey jii nii su demee ba yot nombre carabine pistolet pistolet yooyu not ay différents modèles xam nga ba pare nu yor si un grand nombre bàyyi jàllul frontières yi c'est des pistolets yoo xam ne que ñoo ngi ko defaree foofu sa Touba si ay ruq police su defee ba wala ba biir Mbàkke affaire suñu defee intervention def investigation bu baax dina si gis lu ko leer bali la ñuy importer wala leneen mais lu ko dalee armes majorité ay local té lool ay teug ko def ay forgeron bok ay forgeron ñoo ko def su nit ñi xamulé luy teug forgeron bok mu leer la lay wax man di ngeen ma tontu quoi di ngeen ma tontu dé wal di ngeen ma tontu di ngeen ma tontu dé la lay wax man ak yeen 365 jours lu ñu yalla jox ma ngay ak yeen ma ngay ak yeen

non yéen xamoo leen yéen du leen di jàngal maa ak yéen ay bokk te nee naa yéen sax soo xeflee maa leen ëpp àlliwoo si yoonu muridu laay yéen man lu may xaar ngeen di xaar tëj leen seen gat te ngeen noppal nit ñi quoi mais seen kilifa yooyu noonu di rëy làmmiñ di jaar ñoom lu ñuy xaar pour tontu man de saa maam ku ko tuumaloon nag di ko wax wax yoo xam ne ma génn tontu la yee saa maam moom ku ko tuumaloon moom wax wax yoo xam ne leeru la ma am si lu ma si mën a leeral ma génn tontu la point barre du ma ko bàyyi ñoom la ñuy xaar manam ni ko sen mam bind na 7 tonne demi demi nu sa fexé ba matal demi bi doma raam yi ram len man ak yéen de leen lu wax man ak yéen fi la tout dernièrement ngeen di jaay ay affaire de kéri ki hein eh, señ tilala mo fi gaañu tout dernièrement da wax len si lu tax bàyyi faa ñuuxitulaay ñemewoo leen si wax so nu la ngi man lolu mo gëna bonne moo tax man damay saaga de amul sëriñ amul nguur amul paa ku fi nekkoon dooma xaraam soo deewee nu saaga sa wala nu ñaanal sa ndey lu bon wala nu wax la musiba xamal ni que nag yow doo tus quoi yee genre tanoor yi ba mu fi mo Moustapha Niass a si des Moustapha daa wala dee yàlla na dee Moustapha ñas gasara marak déggoom genre paa yooyu noonu kii nangam da ngay dee ba pare ma ree ma may tànn bee ñaanal moon la fa demee avec tout le reste waaw yaa ngeen ñëw fii bëgg expliqué am na yoo xam ne mooy loolu de dëkk bi nee naa leen dëkk bi saa door dëkk bi saa door de bi saa door su pays door naan ma ay affaire waa nangam neen dem wax seen tiraa la démb la fi faatu waaw mawti ba muy ñëw ba bàyyi ko daf ko yóbbu yóbbaale njaboot bi yóbbaale lépp te ñëpp xam ne lu mu doon def ñëpp xam ne waaw ah wax yaangi fi de mu doon doon ñok xam ne sëñ Tila la woon nante la won xam nañ ko dañuy wax rek parce que bëkk ko jokkee nante la won wala yalla tamit moy loolu du fay wax baye jëf de mais légui mu gañ kay waaye ko sa señ bi ah, ah. eh, nan dem tey tay ngi ni nee naa kan mo nara nek señ seen futur xalif général señ atex mo nara tok après señ señ ki wala kan mo nara tok après euh señ muxtada kan moy tok sëñ ate ah nee naa leen boobaa yoo daa des problèmes saa ñoom muridu laay sa jubul sëñ bi day nangu jabaru taalibe bi eh, bëkk néeg bi ay affaire ki c'est la ñoom sax seen bi jubunu ñu ñuy lekkante claate génn coow leer ay ñëw bëgg noo expliquer ah mën na leen dinañ dem sëñ Tilaala de xam naa ne que moom bis bu sëñ Muxtala jóge fii ba mu wala toog su wàccee moom su toogee moom saa waa jooju noddkatu masalikul bi dootul nodd dootu fa waxtaan parce que ñoom ñaar duñu xaj ci benn jumaa bi waaw imaam bi imaam bi imaam bi duur duur jabaru bilaal bi eh eh eh eh eh yow si ñu xitu laay imam am imaam bi jamono jii nii imaam baa koy këlëmtiku bu baax imaam baa ngi këlëmtiku jabaru jabaru bilaal bi bilaal bi génn aalu waaw ñoom seen biir coolu du ñuy claate nen wax mais ñun nañ noppi eh eh, eh, eh, eh yaa sama ndey nee na yow ku lay tontu naankatu sàngara li lay tontu moo ngi ñëwee ah comme na ma Cheikh Modou Kara tontu Diagne Mara Diagne na ma Cheikh Modou Kara tontu su dee naankatu sàngara yi ñoom it Cheikh Modou Kara même booy bas même bas Abdou Khadre mën na maa tontu naankatu sàngara yi ma wala tontu si seen bii bëri na de su dee si noonu nga ko baase moom su dee ñoom laay xaar ah naa xaar Kara ba xam Kara ah, nee na nen naan ndox bi moom naan rek naan na naan na sàngara gi màndiwul ba ne lee gars yi nen naan ndoxu taw mi mooy lu may wax rek ah, waaw waaw maa ngi koy xaar de bis bu paree rek na tontu su paree si ndoxu su paree si ndoxu Tuuba bi tontu na tontu sëñ Cheikh Modou Kara moo ma nar a tontu de na ma tontu de maa ngi koy xaar nag. Euh, Kamzil Azam non bul sono sa bopp góor jigéen buy may ay limosine kenn du ko delloo du eh, ñuy du ñuy du ñuy du fen rek daal di ne ah jox nañ ko bëkk néeg bëkk néeg bu ñuy may ay limousine non sëñ bi da a jël jox ko bëkk néeg bi ay waay bëkk néeg bu tekki di dawal ay limousine <laughs> c'est ay Aïda Diallo ba muy dem di di ziyaari ji bu xar yi dem nu ne du nga koy dàq kenn du ko recevoir waaye xar yi de delluwul ak moom. xar yi gars yi du nga ko encaissé ba mu rafet teg ko sa gannaaw xool lu ko xam nga <laughs> ah ah ah <laughs> yo I swear to God that people make me going crazy man <laughs> I'm dead with them ah waa nee na sama reetaan bi da koy rey ko non foog ma changer façon wu reetaan quoi reetaan yi baaxul dinañ ma si rey benn jour quoi reetaan yi moom xam naa ni que benn jour dinañ ma si dóor ba ma sonn eh, teraanga kenn du ko a ah nga kenn du ko delloo moom nga wax de léegi xaaral ma jox la exemple loolu waxu daanu saret la léegi déglu ma fii sa yaay wala sa baay nekk si biir kër gi ñoom xam neen lu lay jox xam ne ñoom looy dépassé xam ne lu lay jox ñoom xam ne looy dundee parce que ñoo la jur nga nekk si biir kër gi un jour comme ça là rek nga daal di yegg si ñëw jox ko teraanga oto wala nga jox ko teraanga kër te musulaa gis nga liggéey xamul nga liggéey xamul fu teraanga ñoy mom, léegi mom lan moy waré fam teraanga duñ koy wala teranga kenn du ko delloo la ci rek xam gaay lu ñuy wax rek di expliquer sa yaay xamni ka xaaliss bu nga yor du xaaliss bu baax xaaliss bu bon la wala xaalis buki, wala sa baye xam ko ci boppam nga ñew defal ko ci teranga jox ko lan la si islam wax wal nga ka jël wala wala ko, jël wala wal nga ko laaj fu mu ko jëlé légui tamit ay sen kilifa yu ne du sen waju sen genre baye len de sen baye spirituel len sen baye spirituel len légui nak ngeen ñew di andil geettu xar moom mu ne yow si lu nga nekk neexu al comme sa bàyyi noonu naa la waaye gédd naa la wala suur naa la yow si lu nga nekk neexu ko nga ñëw andil ko teraanga kii mais teraanga kenn du ko delloo mais yow neexoo ko. ah yéen ay wax de nee naa wax bi su leen arrangé ngeen diri ko nu mu leen neexee su leen arrangé wul ngeen génnee ko teg si leneen. man je ne vous comprends pas def ko ni def ko ni voilà Aliou gissé merci teranga da may façon voilà là maintenant on parle teranga da may façon voilà nit ki soo ba nga né ando ni yow parce que Aïda Diallo tay su démé ba di yóbbaay xar te bi di tok di la mu dem ba ngi kanam Yen, man dama laccé mëno leen ma tontu ne ngeen ki mais ayda Diallo mom da ñew da tok da ne day bokku par force duggew fi tok ne pian mëno lo leen ko tous mëno lo leen ko khayrun wala khasiran mëno lo leen ko ñaari salam alaykum fan ngeen muju moy lan señ bi ne legi genn na ci nopi na ci raxasu na ci tej gemi ñom tok di setan lu tol ni tabaski jot mu jital ay xaram li ñew ngeen ne du ngeen ko gis du ngeen wax ak mom mais na fi bayyi xari yen ku ngeen yap ku ngeen yap diine wu ñak jom quoi hein tarixa wu ñak jom sax lay wax tarixa tarixa wu lesku mais ni ku xiif mbete quoi ah ah waaw lu xaram duñ koy delo de lu xadam duñ koy delloo lu nu bëgg duñ koy delloo lu nu sip duñ koy delo kenn duko laal julli deug du laal lu nu sip wala lu xaram point mënoo leen koo sang moo tax ni ñi di sàcc di leen andi di leen ko jox ngeen bëgg koo sang c'est comme xaalis bu ñuy liggéeyee si nguur gi xaalis bu ñuy sàcc di ñëw di ko duggoo seen keesu cotisation yi da ngeen koo wala delloo da ngeen ko wala delloo delloo leen ko da ngeen ko wala delloo alalu sàcc la yee lu xaraam kenn du ko laal ye ye Ami Fall Ami Fall kaañ la quoi Ami Fall vraiment Ami Fall vraiment tu es Lisa, c'est un homme qui se branle à l'eau de Javel, qui s'assoit là, qui essaie de toucher, qui essaie de toucher certaines zones pour regarder est-ce que ce gars, il est là pour ça. Ami, ami, après ça, je voulais parler de mais xorom sa ndey nag pour wol la ni que akamaa kon yaa ngi comprendre xorom sa ndey laa lay wax ba nga taxaw lay lay la wuu man taliban di suma mu ne da Moussa Camara xaw ma la dama bul wàññi sama leer waay bul wàññi sama leer bul wàññi sama leer jàpp si bul ma yàqal waay bul ma tojal dañ eh, tojtal nga yow moom tojtal nga soo nekkee vrai jigéen dégg naa sa jëkkër bu mujj bi da nga da ngeen a sëy une semaine mu dee xam nga man bul ma tojal quoi bàyyi ma rek ma dox merci beaucoup quoi tojtal nga la jeunesse nee naa la de Aïda Diallo Aida Diallo ngi noonu de moom mooy sëriñu xale yu mool yi mooy sëriñu caga yi léegi Cheikh Béthio géré woon caga yi xam nga caga yu caga Sénégal yëpp si Cheikh Béthio leen jébbalu woon léegi ay Diallo mooy seen reine mère dooma raam yi agresseurs yi ah sàcckat yeeg xam nga liñ jaamaan yi ñëpp Cheikh Modou Kara moo leen dajale waaw Cheikh Modou Kara dajale na leen téye leen teg leen beneen ba beneen pàq mu de mu jël compal Abdou Karim moo tax ñoom ñaa ay kole ñoom ñaa ñoo séddoo ndibaay ndibaay xaajee ngi xam nga bleu blanc beneen xaaj xaaj baa ngi rouge rouge noir yaa ngi comprendre léegi nag ñu daal di dem nag ah I don't feel what scooter no I don't <laughs> lu leer laa lay wax Aïda Aïda Diallo moom mooy loolu léegi ay ay ñoom sëriñ euh, nu koy waati euh, ay borom daaru xam ay ñoom borom daaru ak ay borom daaru ak kan am na si ay quelque ñoom ñoom yaay may ma ñeex yi lañ jël doomu playaar yi mooy booy playaar yi xam nga yaay may ma ñeex ay kii Baye Fall eh, eh, kii playta xam nga am na tamit keneen kii waaw ma maam tilaa la xaw ma lan moom moom moo ngi si féek yi moom moo dajale féek yi mooy borom pain wi mooy waali waali yee xam nga gone waali yee yeeg xam nga affaire du nga koo diviser ah, avec les différents euh, nu ma koy waxti non man nan laa ko mën a mais les différentes tendances de la société ñoom duñ koo xool analyser ko léegi branche bu nekk am dooma xaraam boo xam ne moom moo ñëw gérer léegi nit ñu mel non. moo tax soo xoolee foofu xam nga bu njëkk ba c'était difficile nga gis ay jigéen soo xam nga jigéen ñi cagay ñoom wala kii greffage ki na fay boobu c'était c'est l'islam radical quoi mooy mu gën a kii ay greffage moom ay kii ki nangam sooy dem jébalu da ngay muuru cant ya da ngay muuru ay émaay ay yenn affaires yi xam nga loolu daganul woon donc doo ko def léegi nag cagay mooy lool ak booy yi bëgg a dund yi ñoom ñu ngi koy def donc mënuñu woon bokk mënuñu woon bokk te bëggoon nenoo bokk bëggoon nen ku leen see boole ñu créé leen le Serigne le co Cheikh Béthio garaaw ñëwal bul sol dara solo greffage mel nii naay sa émaayal toog leen daja leen coolul yaa ngi si biir ba tey parce que ñoon tamit dañuy cotiser dañuy liggéey de le plus vieux boulot du moon leen yor cagay le plus vieux boulot du monde ñuy liggéey de chaque guddi yu ñuy wàccee du ñuy fay dañoo mën a joxe te du ñuy yaatu caga bu soxor moom nag gisuma ko parce que en fait xam nga lu tax mën naa sa caga bu soxor gisuma ko ak bandi bu soxor doo ko gaaw a gis parce que xaalis bu yomb ku koy am chaque guddi du du gaaw a soxor parce que su koy joxee danaan ax ah, mën naa ko amaat tey suba su ma yeewoo dinaa liggéeyaat kii nankam donc nu mu koy amee noonu la koy joxee donc nag noonu tamit fallait qu'on les encaisse fallait que gars yi dolli ko si maajaal bi ñu daal di leen jël dugal leen moo tax Cheikh Béthio xoolal lu mu doon wàcce xoolal ay kii foo jaar des riches ginnaaw moom lu mu sàcc fonction publique balaa di daw nu koy nëbbu ñoom ba di ko di ko seexal xaalis bu mu fa dóor nu mu bëree ba pare wëlbatiku tamit yor la race de nu ma ko ti liggéey bu gën a yomb Sénégal quoi liggéey bu gën a yomb tamit day fay de caga yi bàyyi ñoo dàq bàyyi caga yi bàyyi lu ñuy liggéey si xaalis balaa ngeen koy xam doxantu leen si auberge yi guddi gi waaye nee naa leen sénégalais looloo tax Sénégal du avancé parce que lu tax ñi di woote nan 95% de musulmans ñoy fessal bar yi ak tiaga yi mu chrétiens yi ñu wax sa na ñom ñoko baxo do leen gis ñuy lang c'est rare nga gis chrétien ci mbeddu dakar yi bu naan bay Mande di es di ki di kep ñuy yëkëti non ñu koy def ñep ay musulmans leen rek ñom ñoy kep di leen di yëkëti ivrogne yu mag yëp sénégal ay Ibrahim ay asan ay tour yu sel la ñuy ay muhammadu ay tour yu sel la ñuy yor yeah ay tour yu sel tur yu sell la ñu yor ñoom ñooy feesal affaire yi te kii lekkukaayu mbaam xuux yi sa soo demee ñoom nga fay fekk nu feesoo del billaay wallaay eh, soo leen déggee nag seen làmmiñ ñii nag nu ñëw waa la la la non ñoo dof rek ñoo rek moo tax daal man leen laa leen mën a wax mooy maa leen di ñaanal yéen ñëpp fu nga nekk yàlla na leen yàlla sàmm encore une fois naan leen on est là de ñun ak Bayu nudara quatre dimanche ñu dara de te du len bayyi du ñu baye gum ñong leen koy langal dina leen top fi ba ngeen leeral bagage yi di ngeen ñu bàyyi di ngeen ñu di ngeen ñu tontu di ngeen ñew ñu ko waxte waxtee dal jam comme ñu ma ko dina leen dimbali yeen si yalla ñuy dimbali ko si yalla ñuy dimbali ko dina leen dimbali dina leen dimbali dimbali walé suñu bop parce que suñ ko defulé rek ça va être être très très très très très très très Eh, eh Loulous Loulous nee na capote rupture au Sénégal mais xanaa gars yi laajuñu pot dégg naa pot du ay capote lay jaay en ligne la moo ngi noonu moo ngi noonu maa la ko wax de maa la ko wax de capote yi dina fa manqué dina fa manqué gars yi utilise te nag pour nga comprendre nag gars yi daa mel ni sax duñu use capote yi de capote yi du nga koy jënd nii rek di ko daas parce que tey la gars yi moom dañuy use capot yi di gën a mën a biiral feebar bi gën faa bëri kenn xamul lan la xamee ni gars yi du nga koy jënd ba pare ëf ko comme ballon quoi sol ko seen bopp yi mais gars yi daa mel du nga ko sol fu nga ko wala sol de billaahi sénégalais yi capote day am rupture mais ngénte yi du rupture tuddkat yi di gën a tudd déggoo waaye yow jigéen ñi di gën a nef nag nef nef bi non ñun sénégalais suñu sage yi am problème sénégal suñu sage femme di gis jigen legi defar ko paré guñu sax bala quelques mois même jigen buñu ñu do ñëwa tok ci taal bi nag ah mais yow ya fi jugé won non jigen ñi du ñuy rek suppu jalañ parce que sëriñ yi ñoy dugal waxu dof yu nekk seen bop gaay yi ñuy jalañ rek përie suba ak bëcëk përie suba guddeeg bëccëg gars yi nekk si ay goor tamit yore ay jëkër yu melni ni lapin hein genn sëñ bi digal leen rek ya ñom tamit ñëw rek yexé rek di gaay gaay matin midi soir déggool moom matin midi soir non pilule sax du dem am na ñoo xam ne sax duñu jox seen jabar yi pilule ñoom kay déggu moo la jàpp di di nefloo rek di nefloo yi xale bi rek ay xale yu ndaw nag la ñuy takk ay xale yu ndaw su leen leen di jox ay vingt ans vingt et un mais gis nga su leen jàppee balaa cinq ans soo leen rombee non mel ni seen maam billaahi mel ni seen maam laa ngir laal yu metti nef yu metti nef yu tegaloo trois doom trois dom, comme ay wala quatre dom, comme ay dalmatien wala comme les Dalton la ilaha illallah waaw comme ay dalmatien maa ko wax de en tout cas dal taliban di, am len jom ñu lu naqari lu leen naqari ñu len ko eh come on sit your demas sit down lu nakari, hein eh ñu len ko sunu sañon ngeen mu sunu sañon ngeen jang ah bamba fep neena na eh degal neena na bamba fep bamba partout bamba merci bamba fep fen nga de bamba senegal voilà bamba Touba voilà léegi nak yeen sen bamba merci bamba nekul fep de lolou ku loko wax tamit dalay nax rek ku loko wax dalay kay koy rek dalay fen lo rek mais bamba nekul fep bamba bamba senegal la yam voilà Bamba fu mu gene ay kenn sénégalais ko fa yobbu rek nek fa di amerde nit ñi bamba bambatisme wobu nonu Sénégal la yam légui mo ngi ni mo tax ñu leen di laaj léral la leen nu mën ko yaatal ngeen bañ no léral tuba bi so leen di wax ak ñeneen ak chinois ak nangam bëgg leen andi fa Bamba da nga leen di wax lu lér billahi tuba bi fi ñew ni fa Bamba ngeen di wone yenn magali ni xam lu leen fa andi li bu reuy rek mo leen fa andi voilà c'est tout yu ñuy daj ci benn xam nga aboori jaal boo xam ne daa mballoo mballu ba Ablaye njaay bi tool ni 4 mètres tubaab bi nuy sonn am nostalgie mu rëcc wàcc kaaw bi ting ko ting yoo xam ne kenn musu ko koo ting tubaab bi kontaan tamit rek langal ko tubaab bi mooy loolu de ala son bonheur ki ni nangam topp ko ñoom tamit nu jël ko déguisé ko solo ko ay njaxas takkal ko ay njalabaan wàcce ko Touba naan ko maam jaara mais moom elle se plaint pas de mais xam nga kañ ngay xam ne kay va se plaindre nan divorce na divorce ak boobu wala mu gis leneen suba suba suba suba suba musa wa watu mu delu sunu mu nekkon maaloo ko wax la laa gis na ci du ben du ñaar du ñet wax ge fi nek rek wax ge fi nek de tank yaa ngi mën lu ngay def ya yaa ngi sa ginnaw di yaay boy du lay bay nga décorer len décorer len solo leen kii dañuy ki mais gis nga bi ngeen bayante mu dem xoli benen abo nek ci lu abo bo bëgg de tuba bi ñoy moy lol de nan bamba partout bamba senegalam Bamba Senegal lem yem Touba Touba la yem nekkul sax Senegal fépp Touba la yem Sénégal accepté wu ñuko da ngeen koy wala wax muy clair bay leen sen fen bi tout le monde na l'a pas accepté yena ko bëgg forcer nit ñi nu leen di laaj nak ay leeral ngeen baña tontu bëgg koo yuuxu forcer ko nit ñi ci ay saaga du jall de du jall la leen tégal ni wala bay leen muuro bi naan Bamba pato kii pala may nak ñuy mu yeen ren na fi Bamba's Day am du yene na lay maga du kii lu tax léegi forcer wo leen tammi Bamba's Day bi am dengan ngeen waloon tamit forcé ne lahi du arrêté du reculer du ki senegal ngeen yeb senegal yi ngeen yeb nit ñi wax ne ni ngeen ne non yeen ngeen di def par force du da ngeen doon def chaque année Bambus Day forcé leen ko ngeen tek ko fi États-Unis par force kay len marche par force kay len kay len marche par force man maay dem wala leen Bambus Day bi arnaque arnaque de l'état joxom la ci nu lek dugol len si bi koñ la rue bu ndaw sama koñ bi ma dekk moko gëna ma walla ni que lépp ay la man bama ma koy gis tele ni koy jël dama foogoon lu reuy la bama ma fi dem na édition seetu ko ni xool ma ko daane mo mbo nekkate li la nuy won chaque c'est pour yom c'est de la merde ya ne Bamba partout waaw légui am nga droit nak né Bamba merci man mom comme numa ma ko waxé rek ku ñëw ba né ma Bamba merci da ngay top sama gannaaw sama fils nga képp ku né Bamba merci tu es mon fils parce que man Bamba lan la xaadimu rasul mbindan mbindanu kan sallallahu alayhi wa sallam man nag ànduma mbindaan bi man sallallahu alayhi wa sallam laa àndal yaa ngi donc yow soo ñëwee ba nga cag si mbindaan bi nga ne ko mbindaan merci donc man mi ànd ak patron bi eh, doo boos bi da may respecté da ngay topp sama gannaaw tëj sa gat yeah parce que Serigne Touba soo su ñëwoon tey di maak moo may yem yeah Serigne Touba muy wut moom laay wut xaadim rasul xaadim rasul point point point voilà Serigne Touba su ñëwoon maag moo may yem de day liggéey may liggéey liggéey nu liggéeyoon doo point ah, waaw waaw Kan eh, ma la ko wax de ah ah ah ah ah ah wayaa yooyu nee naa leen man ak yeen cent ans quatre dimanche mënoo len si man ñaari ñaar lu dul wax gu ñaaw lolu rek ngeen man si man te man wax gu ñaaw mom lolu ken du ko jangal xale te nee le leen maa gëna ñaaw la miñ maa leen saf la mi man je vous casse la gueule xalo poliment je vous casse la gueule avec la classe poliment j'ai pas besoin d'insulter chaque jour vulgairement pour vous casser la gueule. Je peux le faire avec intelligence. Je vous casse la gueule avec mon esprit. Avec mes recherches et mes questions. Ça vous botte bien les fesses depuis longtemps. Cinq mois, je voulais labali. Eh, nee ngeen man kon la nee là-bas. leen lu que vous lu ngeen may gën a lu bon muy gën a nekk seen parce que après su ngeen paree da ngeen naan kon be doomu caga bi ivrogne bi doomu xaraam bi lu bon lépp lu ngeen ko teg moom moo nu def nii moom moo nu yee moom moo nu wax dëgg seen gàcce la seen gàcce la. di ngeen ma tontu de man man lu leen metteek yi ngeen di naqarloog yi ngeen di tëb man safuma safuma billaahi safuma billaahi wallaahi taalaahi safuma yàllaa ma saf yonente gi saf ma yërmande kam nga ak samay waajur quoi ak nit ku am yërmande nit ku dëggu noo dafa may saf mais fenkat bëgg a jaay zak reewantal waaye faal fii lool kenn di ko jàngal kenn man sama bo sama baay nee naan daf ma see tàggat waaye aw ma kii de laay léegi la sax Pa Moussa bu Pata leen ma doon wax man ba ma suy tool nekk booy ñetti Pa Moussa leen woon suñu koñ man dañ doon différencé naa ma Pa Moussa bu Pata tool si am samay kàttan man kan da nga may dóor ma ñëg si jooy sama baay tàggat ma génn nga dem xeex génn ku la dóor mu yéendu xool sama moroom na sama saay mu duma ma daf may duma génne ma dama dama nga xeex sa moroom la kenn du la waaw du ma la dundal ba nga tool nii son moroom sa moroom tamit seen i bàyyi dundal la nu lay nokk ngay ñibbisi di jooy dangay dem fayu noonu la ko sama bàyyi doon jàppee ba ma sanguinaire con ma dem ba nga waaye sama propre grand bu ma doon bopp bi laa xar ba tey su ma ko xoolee man mooy loolu paa bi noonu la ma tàggatee góor su la defee dara soo demee ba kii mais lijjanti ko doo dellu si si gàlle geeg defet point barre defet musuma am defet musuma am defet sama àdduna a jug dem lijjanti kii nii nangam non su ma ko amee sax tey dama koy topp ba ma lijjanti ko ñëwaat waaw defetu kii kii ni nangam non dama koy lijjanti ba mu mat ñëwaat su ma ko ratee tey dem toogaa jooy naqarlu defarluwaat ñëw doo leen tous taliban di ay branleur à l'eau javel leen non eau de javel sa tane ay tuflikat ay mballukat au tuflikat fenkat leen duurkat profitard nee naa leen man nit ko wax sarax ngeen di dundee mënoo leen vous n'avez rien à dire sarax ngeen di dundee amoo leen aucun apport si dëkk bi aucun apport aucun mën amoo leen benn apport ba pare ngeen bëgg a joxe ay leçons quelle leçon fermez la bouclez la bouclez là quoi moo tax man ñi dinañ ma gaañ waaye sëñ bi waaye sëñ bi sëñ bi dimbali na ma sëñ bi dimbali na ma àdduna wi laaxira sëñ bi ma defar su duloon sëñ bi yàq ma yàqu waaye su duloon sëñ bi ay yaa yaa kii mooy doom non comme ça yaay sa baay musu loolu man nee naa loolu képp ko taxaw moo njëkk taxaw saaga baayam saaga ay waajur loolay sa baay musulaa yar sa yaay musulaa ne xolol bul def noonu musulaa noo sëñ bee la ko wax sëñ bee la dimbali sëñ bi nga mënoon déggal ko say ndey moom doo ko dégg hmm. yam sa baay sa baay wax ba sonn doo ko déggal sa ndey wax ba sonn doo ko déggal sëñ bi ñëw nga topp ko si ay affaire daf ne sëñ bee la dimbali hmm, hmm, fay seen i fen yal na leen yàlla fay seeni i fen yal na leen yàlla fay seeni fen yal na leen yàlla fay seeni fen yal na nu yàlla leeral yàlla na nu yàlla leeral yàlla na yàlla leeral yàlla na yàlla def lu gën si ñun waa léegi ma gumba eh? waaw dara baax ba garaawul bët du wax gémmiñ mooy wax gémmiñ même suma ma gumbayee dinaa mën a wax alhamdulilah waaye de jàppal ni ko su ma gumbayee damay yóbbaale bas basama gën a ñëpp yéen basama gën a gumba bas na def benn jour intervention dindi veer yi man ngeen yëpp di ngeen ma jox cër bu ngeen jox seen sëriñ yi nak man nee lu ngeen di ñëw wër di ko wër si réseaux sociaux bi rek bàyyi ngeen ko Touba jal léegi man sa yi ngeen ñëwee ngeen génnee ko si réseaux sociaux ma jox leen si ay exemple fa Touba ngeen gérer ko fof voilà ye do leen fi ñëw di raxas nit ñi ngeen di raxas nit set de bilahi bas billahi su gumba du ma fi bàyyi bas man man gumba bu bes la mais bas bas mon ngi commencé né gumba bu yag dé mu ngi commencé nekk gumba bu yàgg de xanaa bis bu gumba dootu nekk porte parole eh eh eh eh eh eh, eh. bas bëtam yooyu noonu xaalis rek lay gis xaalis xaalis ak waaw wala ak Baye Fall bi ak loolu waaw ak petit camp bas moom xaalis ak petit camp yi moo tax foo ko gis moom ak ak ak ak ak Valmeras yi gisoo tuñ bu rose bi Valmeras vingt vingt kay def da ngeen koy xool si ay Souleymane Fel Souleymane Faye ak yeneen gars yi nankatu vingt yi nankatu vingt yu mag yi suñuy commencé kii seen tuñ yi kii rose commencé kii vingt ok vingt gu bëri xam na leen moo lay kone de ngeen kay daa leen wax rek da ngeen noo yëpp da ngeen noo yëpp daleen ngeen noo yëpp daa leen wax rek ale yàlla jàppaleen bàyyi neen leen ak bas yéen moom ñuuxit yi bàyyi na leen ak bas yéen yal na leen yàlla dimbali dégg maa ngi dem te ñëw su ma ñëwaatee mu gën fee neex yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla musal si seytaane yal nu yàlla boole yal yàlla ubbiwaat xol yi maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp Eva la Diva Ibrahima Dali Ndiaye xam man, I'm going So bune mes, buge neka, um, bara ama. Allen di siyaar ñëpp la jeunesse siyaar naa Abou Bakar siyaar naa mon frère amal Jam, mon frère al Mami jaw Kana Doto, ñëw Sénégal non coolu so bëggee nu dajee frontière Mali Mali lay dem légui gaay néna ma dem Mali légui Mali lay dem frontière Bamako man nañ fa dajé ma may sama carte d'identité so bëggé dé mais ça ne change rien parce que yeen ñuuxitulaaxi ba ngeen no bëggé daf leen jaral dem ba Bamako dem tok si imam Diko di fen imam diko waxo leen ko sax leen fatax ki dem rek pour mu wax dara ngeen daal di ñëw ni imam Diko sa da and ak ñun mouride imam Diko sa da and ak ñun mouride ngir bëgg dox ci bop nit di fen wala ngeen dem ba si imaam di ko nekkoon da ngeen am 33 maam ñett bokk ndey baay ak ay affaire de kii ngeen dégg waxam ñëw fii di sóob man bàyyi naa leen su ma ñëwee ba ba su may ñëw koy Afrique imaam di ko di ko seeti yóbbul ko addiya ak i ak i xam nga waaw waaw imaam Mali laa jëm de Mali mbokkum bambara yi waaw on est des nekk nu fii ànd ay fenkat ay tapet yo xamné sen guerrier bi yeb ci fen le créer une histoire de guerrier histoire bu amul xeex mais histoire montée de toutes pièces noonu la gars yi bëgg a guerrier guerrier wu lamine, guerrier wu wax waaw ño def li ño def lé ño ki ño libéré que ou le Sénégal le Sénégal n'a jamais libéré le Sénégal était un pion le Sénégal a vendu tout le monde Le Sénégal a fait partie ah le Sénégal nee nous len ñun suñu jugalee suñu bop teel a lijjanti li ak bu nu dal moo nu tax ñu dund lii ñëpp dinañ tekki bàyyi Afrique ñëpp dinañ développé bàyyi nu ngir àq ñoo leen jaay woon démb tey ñoo leen gën a teg ñoo ngi nii ngi noonu bi dem rek Sénégal créer une histoire fausse Senghor un faux président Senghor du faux Senghor di manipulation hein eh, eh, Ablaye tous manipulation des Français de la merde ñëw naanu négritude waaye la négritude négru maamam négru maamam la nègre de son papa ñëw wa fen dooma xaram Senghor moo ngi noonu ba mu dee ba hymne national ñëw naan kii alhamdulilah moom dégg naa si samay waxu maam pincez tous vos koras frappez vos balafons manding ko manding ko móori mais lu ma si gën a métti Baye Fall ba tey jii nii le Sénégal paye des milliards de droits d'auteur de à l'hymne national à la famille de Senghor si lan teg ko si lan si fan ak si naka pourquoi bàyyi on doit payer des droits d'auteur de notre propre hymne national à un ancien président qui a été amené en France, enseigné par les Francs, qui vient nous raconter des négritudes. non après Sénégal a ngi noonu de on ñooy wax ni di yëkkati On Mali là, dem Imam Diko. Mali là, dem Imam Diko. On là-bas les jeunes sont morts ils sont morts. what's up that is not my it's not working that's good not working both of them are running. None of them know rowing. Sai, Nova Killer, Nova Killer, Munjam, Munjam. Qui n'est que Furek Diwa. bëgg créer une histoire false une histoire false tout cela c'est faux noonu nag la gars yi tamit ñooy bàyyi fa aaleeg ñuuxitu laax yi tamit teg ko tamit xam nga teg ko si Ben affaire boo xam ne kenn comprendre si Ben wax boo xam ne bay mooy loolu mais Serigne Touba ko nit quoi Serigne Touba soxor man xaaral ma sama di jégaluwaat encore si journée gi ak si lépp lu fi ñaawoon xaale man ma ñëw raccroché liiraat commentaire yi seetaan naa ne sama bopp parce que tey moom gis naa fi ay xeetu commentaire yoo xam ne bul sax comprendre quoi leen daal xool leen. Ya nu yalla sutural nu yalla sutural nu nu parce que kon dernier mot pour les talibans après avoir insulté donnez-nous des réponses bi la ban waxtu la woon nan ngeen def ba xam ni que cinquante la woon si diggante suuf seeg der gi ba muy wàcc dafa tëb dafa jipp dafa teg buum dafa kii wala nangam xam nga léegi daal ñun yooyu la leen di laaj quoi fan ngeen ko tëjee woon ak gaynde gi fan ngeen fan ngeen ko tëjee fuur bi ba mu demee ba ba Gabon nu daal mu gis fa jinne bi mu nekk xaw ma barki bii barka ba garka boo xaw ma lan li jënti fa boppam ba jinne bi ne ko waaw so beugé ma del la fu nga jóge ci diggante xaf ak xippi mu ne ko déere légui lutax ba heure ñibi ci joté jëlul même jinne bi mu neelu ci il fallait que nu di encore tuba bu ngeen naan yebul ya serigne touba ñaan ko njekk mu daal di dem jël ci ko andi ko lu ni wax c'est clair 33 femmes ñett yu bokku ndey ak bay ak ben demi sœur lu ci islam wax légui nak su ngeen bëggé créer nak waxu dafa takk kii fase ke kee gaañu fii ke génn fii amené nu les preuves parce que ñun preuve yu nu yor ba mu leen di takk ñoom ñëpp a juddandoo ñoom ñëpp doon dund te preuve yi dafa bëri façon am nañ si preuve vidéo pa bu dund fekkee ñëw toog wax leen expliquer pa boo xam ne au moins fekkee nag génération bu yàgg wax am nañ si tamit beneen preuve mooy si diggante aawo bu sëy si muy yaayu xaw ma sëriñ saalu ak ñaareel bi ñoom ñaar huit mois vingt jour leen magante huit mois vingt jours nag ñaari nit ñu ko magante ëmb gi ko mbokk si distance ru ñaata la biir bi temps bi si distance su ñaata la ak kañ la ko wasin ba dee ba nu takk keneen ki ba kii donc xanaa daa am adultère wala daa biiroon ah. ñoom ñaar magante wu nu at. doomu ak ñaare ak am doomu doomu pour mu clair 8 mois 20 jours len maganté ni ay un niveau nous on est perdu ça ci yu C'est rek que vous avez laaj te di leen wax ngeen góorgóorlu su ngeen demee ba mënoo leen tontu tëj leen seen gat ngeen su ngeen tamit xam mais comme ko vous le destin vous ne pouvez pas changer le destin la balle est déjà partie et on veut des réponses te vous allez nous répondre ah ki on n'est pas dissuasif 4 mois 5 mois sa ngeen ne on n'est pas dissuadé ba tay loolu walon na len yéene que ki du dissuadé wu 4 mois 5 mois ñaato faux profil hein eh, ñaato faux profil ngeen ma defal rek pour mën a ñëw saaga ma ah eh, nee naa leen ba sonni ke xam-xam boobu ak katan gogu su ngeen ko defoon outil ji réponse wala sax yéen sen bopp ngeen dem jàngali sen bop ci yoon bi su ngeen ñëwaatee ni ngeen tok dëj sen bop déglu nit ñi di xaar mais su ngeen sonnulee rek du ñu su ngeen taayulee du ñu taay su ngeen tàyyiwulee tamit du ñu tàyyi ñoo ngi ak yéen. waaw et que ça continue comme nu ma ko waxee rek le combat continue peace love harmonie et Aboubacar nga ne la tudd ji na xër xë xë xë dër dër dër dër ah man mooy loolu sëriñ xaadim bamba mu ne lan musaa bàyyi lu ngay def waay akama kaa bëgg a bàyyi sëriñ xaadim loolu rek laa bëgg a bàyyi billaay wallaay si ginnaaw ngeen tontu ma tamit ngeen bàyyi xaalisu askan bu ngeen di jël di ko sàcc ndaw yi ngeen jël dañ lem leen ñoom ñëpp teg leen si taatu bâche yi amaluñu benn njëriñu dëkk bi fen bu bëri bi si ginnaaw ngeen bàyyi ko billaahi wallaahi wal kitaabi ma dem di jënt ji yeneen bagage parce que tal amaloo ko jaraloo leen ma amaloo leen benn njëriñ mais instant gi da ngeen ma commencé handicapé handicapé sama dëkk parce que amaloo ma njëriñ génnaloo ma benn génne la si dëkk bi amoo leen benn njëriñ ba pare jël ñu waloon liggéey dëkk bi teg ko seen place takk leen ay buum ñu toog si taatu bâche léegi dëkk bi kale man da loolu su ngeen ma ci dimbalé serigne xawma tour gi sax rombu na ma waaw serigne bobu non ma wax léegi waaw loolu da su ngeen ma ci dimbalé billahi ma bayli parce que amolam serigne khalim mbamba waaw da ngeen may tardel da ngeen may sono tardel ngeen dëkk bi 100 ans akay fan xam nga mais man ma nango tardé ak yeen nak pour nak pour leeral wax yi mais da ngeen nuy tardel 100 ans akay fan de ndaw yëpp rop moy loolu gis ngeen motax dal wax dëgg fa yàlla tabaarukàlla macha allah bëgg naa bàyyi lu may def mais yéen tam wala bayyi lu ngeen di def parce que lu may def ci yéen la jóge tant que nag yéen a ngi def nag nuy continuer di def def bi dafa wala taxaw def bi ça doit arrêter sàcc xaalisu dëkk bi ànd ak nguur bi seddoo dëkk bi toog bëgg xam nga jël islam bi yàq ko weddiloo nit ñi yonente gi jël xaamin gi alxuraan ngi di ko tourner di damm bëy di di wax seen i merde toog fi bëgg lu yomb su ngeen nu si dimbalee daal billaahi nu fàtte leen sax du leen di fàtte carrément ni que sax yéen a ngi fi loolu daal xam nga moom daal lan leen di loolu daal laal laal loolu rek xam nga loolu la woon rek tabaarukàlla macha allah. non non sonu ñun tamit yeen nu ngeen commencé sonu ci wax yeen 4 mois rek ngeen am ngeen commencé sonn commencé dik ñi di mer ñi di saaka ñun 100 ans ñoo ci si ne yéen waxabit yu ngeen di wax di leen ki ñoom mën na no muñ de parce que man bamay mag sa ci lool la leen dégg waxabit waxabit sonal nga leen ñoo ñuy muñ bo ba leg yeen 4 mois rek 5 mois leen leen laaj ngeen tollal ko fi di joy hein 4 mois rek ngeen di joy hein bëgg na no bàyyi wa bëgg na no bàyyi de tabarakallah ma sha allah ma yeen tamit jappale leen nu quoi waaw jàppale leen nu xam nga nekk leen si jàmm ba si beneen waxtaan nu daal di ñëwaat toog waxtaan continuer mënu lu duuf si si nag bi xejul si cin bi maak ki yéen cent ans dimanche laa leen wax tant que a ngi mën saaga may mën laajte su ngeen mënee tontu nag ma mën noppi ma ngeen di la nga mën saaga ma mën laajte jaajëf sama gars yi